plateau de yeewu leen ne ndar moo gën a neex Dakar est-ce que ndar moo a neex Dakar ku a neex Dakar kon a neex Dakar ku a neex Dakar ku a neex Dakar ku a neex Dakar fan moo dàq dëkk yëpp. gën a neex Dakar ah, Ndar moo gën a neex Dakar fu gën a neex Thiès Thiès ah Thiès moo gën a neex Ndar <laughs> Richard Toll moo gën a neex Ndar mais Richard Toll euh, mais Ross Béthio moo gën a <laughs> moo gën a neex Ross Béthio Ross Béthio gën a neex Ndar géej Ross Béthio gën a neex Ndar Géej. voilà. non non non. Rosso gën a neex Ndar Géej. bon. Rosso gën a neex Ndar Géej. yéen a bëgg lu yomb. Rosso gën a neex Ndar Géej. maa ko. waa léegi. Balakos moo gën a neex Pikine. Balakos a gën a neex Pikine. waa léegi Sor moo a neex Lodo. Sor oh. Pikine a gën a neex Lodo. waa léegi Sandaga na neex teeñ jigéen yéen a bëgg lu yomb ndar moo gën a neex ci Sénégal eh! Sénégal ah. monsieur le maire euh, maire bu Ross Béthio maire bu commune bu Ross Béthio moo ñu euh, fekk si euh, di suñu xarit Bécaye Diop Bécaye ñu ngi lay nuyu. kontaan nañu ci ni nga bàyyi liggéey bi yëpp nag sa fait plus de trois jours nga nekk ak ñun ci liggéey bi waaye tey nga ni da ngay ñëw comme ça waxtaan ak waa Sénégal ndax liggéey bi nga nekkee ci commune bu Ross Béthio. dëgg la pap Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu euh, ñu ci plateau bi yëpp. Mhm. di beral nuyu nag sama jarbaat Madou. waaw. <laughs> loolu mooy wane nag kii doomu ndar la. doomu ndar dëgg la. di nuyu euh, vraiment tous les téléspectateurs. Mhm. de la télévision Futur Média. du mhm. groupe Futur Média en général. di rafetlu vraiment cette option que vous avez prise. di décentraliser yenn émissions yi. ça permet déjà aux populations les plus reculées. de mettre un visage, en tout cas de, de pouvoir vous, vous approcher. Mm -hmm. Mais surtout, ça permet à tout le Sénégal de voir ce qui se fait à l'intérieur du pays. Mm-hmm. loolu moo tax ba ma ko yégee ma sawar ci ànd ak yéen depuis que ngeen vous à Saint-Louis. Mm-hmm. Euh, loolu aussi mooy tax ñun ci wàll bi ñu yëngu. Mm-hmm. ñu mën a firndeel ñu mën a fësal la nga xam ne. moom la ñu fas yéene def pour bokk ci train bi nga xam ne jël la départ ba pare. te ñun ñu fas yéene dugg ci biir train bi balaa mu ñuy bàyyi ci ginnaaw. alors ku ne ku ne Ross Béthio mbay mi ngay wax ku ne mbay mi wax ceeb ku wax ceeb fan yëpp gis nga euh, autorité yu Sénégal maanaam yéen yéen a ngi euh, euh, jagleel seen combat ak liggéey bi ci autosuffisance programme bi ñu tuddee autosuffisance en riz horizon 2017 alors defe naa ni comme ni ko président bëggee yow mi ñu dénk Ross Béthio noonu nga ko bëggee parce que yéen bokk combat fan la programme boobu toll surtout. Euh, taxawaayu commune bu euh, Ross Béthio waaw Pape Cheikh xam nga euh, man d'abord damay rafetlu cette vision du président de la République parce que mm-hmm. Ross Béthio yàlla def na au Sénégal c'est la seule commune mm-hmm. autosuffisante en riz maanaam mm-hmm. bépp ceeb bu ñuy lekk bu ñuy consommer à Ross Béthio c'est du riz de la vallée amul benn ceeb importé buy dugg Ross Béthio eh, ñun nag modèle boobu la ñu bëgg a jël fexe ba mu fës fépp ci Sénégal. c'est pour cela que nous positionnons de Ross Béthio comme étant la capitale du riz de la vallée. lépp loo xam ne dafay jafe-jafe pour que ceeb bi bañ a ci jóge bitim réew di jug di di ñëw Sénégal. foofu lañ koy waxtaanee. ñun nag commune bi ñu ne su wàll bi ñu war a def ci ci ci programme président boobu mooy. ñu def mu nekk benn une sorte de de de de de cadre d'échange. de plateau d'échange entre. les importateurs les commerçants et les producteurs. d'accord ba at mu jot dana jël ñetti fan ci at mi ñu def genre yi foire la la fête du riz de la vallée. Mhm. à Ross Béthio. Mhm. où on va inviter tous les acteurs ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu mbayum ceeb. Mhm. tous ces acteurs là. ñu ñëw xool d'abord nañu koy bayee nañu koy. transformé pour que commercialisation mën yomb parce que jafe-jafe bi ci am yëpp mu ñuy wax toujours c'est la commercialisation c'est parce que dañu xaymawul mbay mi naka lañ koy defaree nañ ko naka lañ koy jëlee en charge transformation bi naka lañ koy yore te am na leneen lu ci am solo te man parce que man j'intéresse toujours les chiffres xam nga soo jëlee la ñu soxla pour que ñëpp euh, ceeb bañ a ci jóge bitim réew di ñëw fii c'est à peu un million deux cent mille tonnes loolu pour ñu am ko il faut compter à peu près trois cent mille hectares euh, aménagés exploité. 300000 hectares hectare bu nekk dina jël benn nit ak genn wàll jàpp ñaari nit. Mhm. donc loolu soo xoolee suñu suñu si on arrive à exploiter les 300000 hectares. mooy liggéeyaloon nañu six cent mille personnes. six cent mille personnes waxaguma transformation waxaguma commercialisation. donc c' est le secteur qui emploie le plus. le plus de personnes. d' accord donc c' est un secteur bu ñu war a jël en charge. donc président comprendre na loolu. moo tax mu def ko objectif. ñu nag ñoo koy ñoo koy traduire en acte concret. en commencer par la commune de Ross Béthio. voilà et ce sera important pour euh, Sénégal yëpp ah ndax xam naa résultat bi du yem rek euh, ci. ci euh, Ross Béthio waaye dafay law euh, jëm ci euh, Sénégal yëpp Ross ku ne xam na ni dëkk la boo xamante ni li mu jur ci luy jëriñ Sénégal bëri na moo tax li ñu bëgg rek mooy monsieur le maire nga wax ñu ci projet yu mag yu commune bu Ross waaw projet yu mag yi bi ci njëkk mooy maanaam fexe ba comme niñ ko waxee sànq fexe ba képp kuy ndaw foofu mhm. am foo yëngu taxawal nañ nag trois grands projets. Mhm. moo xam ci mbay mi la moo xam ci commercialisation bi la moo xam ci transformation. Mhm. ces trois grands projets la mhm. la muy jur ci emploi. au niveau de la commune ça tourne autour de deux mille deux mille personnes. d'accord là si on tient compte du fait que la population de Ross Béthio dans son entièreté tourne autour de douze mille personnes. je crois que soo xoolee ratio bi rek c'est plus qu'acceptable. ce qui fait que aujourd'hui toutes les grandes firmes toutes les toutes les structures au niveau national ñu ngi ñëw. di jege si commune de Ross Béthio sachant que vraiment c' un peu ce qu'on appelle l'Eldorado mhm. euh, du Sénégal mhm. euh, li ci wàllum santé aussi mhm. ñu ngi en phase avec euh, le le le le le la politique sectorielle de l'État et que bientôt nous allons pas mettre en place un centre de santé qui va appuyer au-delà de Ross Béthio même toutes les le, les populations environnantes mmh. appartenant aux communes de Diama de Ronkh etc de Gnith etc. D'accord. Donc vraiment c'est pour ne pas trop me, me m'étendre sur le le, le, le le comment nous, nous allons fonctionner sur les trois années mhm. nous, nous avons pris en compte les préoccupations des populations que nous avons traduit en en en en que nous avons agrégé en projet et que donc dans les trois ans à venir tous ces projets là vont se. alors j'ai une question boo xamante ne Exaidex moom la ko parce que euh, yow euh, yaa ngi nekk euh, directeur des équipements scolaires. bu ministère de l'éducation nationale. alors moom artisan yee ko soxal. est-ce que artisan yi fi ne. yow en tant que directeur des équipements scolaires ci ministère de l'éducation. ñoom di nga leen jàppale jox leen liggéey ba ñuy defar ay table-bancs. école yi nekk Sénégal. waaw waaw tout xam nga loolu. d'abord président daf ñu ko daf ko sas dafa nañu faw ñu def ko mais laata mu ñu koy wax sax ñun jot jot nañ ci gëstu moment bii may wax am na benn programme bu ñu lancé programme boobu lu tollook juróom benni junni table banc yoo xam ne artisans yi ñoo koy defar parce que président dafa ne 15 pour cent de la commande publique nañ ko jox artisans yi ñun dañu jël 30 pour cent de la commande publique pareel ko artisans yi mais yemuñu foofu xam nga ñun ñëpp jaar nañ ci école yi fii. gis nañ ne école boo dem. di nga fa fekk cimetière table banc. waaw yu nekk foofu. kenn defu ci dara. wallaay ñun bañ ko xaymaa. Mhm. toll na si ñeenti téeméeri junniy table banc quatre cent mille table banc. Mhm. mu ngi fi mhm. dans tout le Sénégal. loolu it danañ ko door ren. dañu bëgg def projet de réhabilitation des tables-bancs ah te loolu artisans yi ñoo koy defar mhm. muy 400 000 tables-bancs suñ ko xayma en termes de chiffre c'est 7 mhm. à milliards de francs CFA ah, alors loolu danañ ko commencer ren ñu ngi koy commencer région de Dakar très bien à partir de 2016 on va l'étendre dans tout le Sénégal et sur 4 uh-huh. ans uh-huh. tous les tables-bancs vont être réhabilités uh-huh. au ñuy jëndaat yu bees ñu defar yooyu te artisans yi rek ñoo koy mën defar du keneen donc artisans yi dañuy am ah. voilà bëggoon euh, relancer la rek juste sur la même question moom mooy toujours ci artisan yi. Euh, soo koy xool euh, ñoom travail de qualité bi ñuy def. ci ñoom ñoo ko gën parce que defaru loxo moo gën a dëgër. Mhm. defaru machine. donc ñooñu dañ leen ci war a impliquer je pense que c'est une belle initiative. Mhm. c'est ça c'est nous avons en tout cas li ñu xalaat mooy. Mhm. xam nga 400 000 table bancs. soo ko bëggee defar. di nga di nga di nga di nga employé nga ma jox liggéey lu tolloog 4000 artisans. Mhm. absolument 4000 mhm. menuisiers menuisiers métalliques. Mhm, xam nga loolu dafa dul lu tuuti soo jàppee ne menuisier bu nekk. dana mën a employé ñaar ba ñetti nit. donc ça fait entre 10 et 12000 personnes yoo xam ne. mën nañu liggéey ci programme boobu. te loolu moo ëppal njëriñ Sénégal. parce que vraiment c' est des activités génératrices de revenus et une création c' de la richesse qu'on chaque commune de moo tax ñun dañ ko def projet phare. dinañ ko taxawal parce que loolu la ñu président sant. te loolu lañ bëgg pour euh, pour. voilà euh, merci beaucoup monsieur le maire en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax ah, ci ni nga ñu taxawoo ba ba tey. merci euh, beaucoup y a eu ah, ay cat yoo xamante ni dugg na ci antenne de décentralisée beeg yeewu leen bi ñu bëggoon def fii ci Ndar Géej ak GFM chez vous. mais gis nañu ni nga fonkee Ndar gis nañu ni nga fonkee Ross Béthio moo tax defe naa boobu ba tey nga àndandoo ak ñu ngi lay gërëm bu baax. waaw dama fonk aussi groupe GFM. parce que d'abord merci beaucoup merci. merci en tout cas bonne continuation. merci sur ce que vous faites mais n'oubliez pas que aussi. votre devoir c'est de vous rapprocher le plus possible des populations. voilà inchallah et c'est ce que nous faisons parce que population bi tax ñu nekk leadership. looloo indi programme yu am solo yi ñu tuddee GFM chez vous ba ñu nas euh, yeewu leen décentralisé ko gore la ñu njëkkee woon tey nag ñu ngi fii euh, ci euh, dëkk bii di Ndar xam naa ni boobu nag ba tey ci diggee yéen a ngi doon xaar waaye tey la ko suñu borom dogal ba tax rek ñu ngi àndandoo fii ci place Faidherbe di bërëb boo xamante ni dafa feese dell ak wàllu. Euh, histoire alors ñu ngi nuyu nag doomu ndar yi nekk ci Sénégal yëpp euh, di ñu seetaan ak doomu ndar yi nekk euh, ca bitim réew xam naa ni kenn ku ci nekk yaa ngi rafetlu tey li nga xamee ni moom la ñu nekkee ak ndar dinañu dem nag léegi ci wàllu liggéey bi. parce que euh, li monsieur le maire wax léegi euh, dafay euh, laal li Excidex indi tey jëm ci artisan yi ak seen liggéey parce que ñoom defe naa ni li nga wax sànq li ñuy liggéey yëpp ñoom artisan yi nekk fii ci Ndar lépp kenn mënu ko wane ci benn émission. absolument Pape Cheikh kenn mënu ko wane ci benn émission ba tax na ki nga xamante ne nag dama koy jox mention spéciale muy Cheikh Gueye di président les artisans de la région de Saint-Louis kooku nag di def liggéey bu rafet. Mhm. day jugee Ndar ñëw ba Dakar euh, wax dëgg neex yàlla di euh, def tout pour que euh, li nga xamante ne moom mooy les artisans de la région de Saint-Louis ñu mën leen dégg ba pare seen kàddu aussi ñu mën ko jot Dakar ba tax na moom mi nga xamante ne nag vraiment bu ñu yegsee ba léegi wax dëgg yàlla lépp loo xamante ne bëgg nañ ko ci wàllu wane artisan Saint-Louis def nañu ko donc moom nag bi ñuy ñëwee dañ def benn élément ci moom mais dañu choisir benn liggéey muy bijouterie. bijouterie moo ci woon dugg xanaa usine boobu lañ tuddee bisu. waaw bisu xam nga bisu moom. Ah. voilà loolu tax sax mu. c'est notre bisu papa ma bisu tëri <laughs> bisu tëri alors voilà donc. Euh, ah, ñu tuddee la bisu. donc nag mu nekk nag euh, métier bi nga xamante ni métier bu yàgg la. Mhm. ñu def ci reportage du ñu yaatal nag parce que comme le temps daf ñoo xaw a xoj donc dañuy seetaan élément bi bu ñu dellu see ñu soog euh, dugg ci détails yi donc ñu seetaan élément yi. artisanat nag mu nekk benn corps de métier boo xam dafa bokk ci artisanat alors ñuy dund nag am jafe-jafe boo xam ne ñu ngi ko dund jafe-jafe bi lan la mooy accès à la matière première maanaam approvisionnement contrairement aux autres corps yi nga xam ne tey muy maçonnerie bi tey bu soxla woon liggéey day dem jënd ciment rek ñëw liggéey menuisier bi su bëggee liggéey am na fu muy jënd bois mais tey man man tëgg bi soo ñëwoon si man nga sant ma liggéey damay jaaxle ndax jaaxle bi mooy amul fu ma mën taxaw ñu jaay ma or ma jënd liggéey. or ni ma koy amee wala xaalis mooy nit mooy takk ba xolam sedd mu ñëw jaayaat ma. ma jël ko fondre ko liggéey ko joxe loolu mooy tudd récupération mais malheur bi nekk si loolu toujours mooy chaque fois bu lay jigéen jaayee nga jënd liggéey ba joxe quelque temps après toujours dañuy suivre sa problème mu recel recel bi mooy dañuy ñëw ni la ndax xam nga ndaw si la jaay or bi su ko defee nga ne effectivement mas na fi ñëw jaay ma ñun la lim la jaayoon daf ko sàcc si kon yow da ngay daan nekk receleur. seet yàlla sama maam lii la ma wax l'histoire retiendra ça bijoutier bi suba bu xëyee rek receleur la te mënuñu ko comprendre si dëkk boo xam dafa mel ne Sénégal ñëpp d'accord nii dañuy exploiter or fii Sénégal chaque fois gis nañu ñu présenter président yi fi jaar ay lingots d'or pour wane ni kon dëkk bi day exploiter l'or mais malheureusement or boobu yëpp ñuy exploiter leen noonu lañ koy jëlee exporter ko yóbbu ko si dëkk yu mel nag ay Canada ak ay États-Unis société mel noonu ñoo fi nekk nekk sabaltaal di exploiter or bi man mi nga xam ne citoyen sénégalais la di bijoutier mënuma am accès à un dara ngi nelaw yàlla rëbb na ko ko yee bu dee sa wax dafa dis xoolaatal la ngay wax baax gala na nga doon ñaan di tàllal loxo état bi effectivement que le président même a signé le pour un mi pour la mise en place d'un comptoir d'achat et de vente d'or pour nous permettre que tranquillement bijoutier bi man jëndi or comme ñeneen liggéey joxe bu tëddee nelaw du ñu am problème mu vraiment loolu mooy problème yi nga xam ni moom la ñuy courir vraiment di tendre la main aux autorités étatiques de ce par rapport la conseil ma jox la conseil looy diggante si ma wax. Euh, mu nekkoon euh, élément bi nga xamante dañ ko euh, gëstu jëmale ko ci wàllu bijouterie waaye lu ñu naan nettali ci làmmiñu borom la gën moo tax ma invité ko tey ki nga xamante ne wax dëgg neex yàlla da ciy def ay jéegu yu rëy muy Cheikh Gueye donc Cheikh Gueye ñu lay nuyu. waaw donc euh, mi ngi koy gis nii nag moom mooy président artisan euh, région de Saint-Louis. Mm-hmm. donc du wax rek ci wàllu bijouterie mais dama dafa da ci sànni kaddu rek. Mm-hmm. Euh, pour wax waxal ñi nga xamante ne jotuñu fi teew. ak artisan yi artisan yi voilà. voilà donc ex maa ngi leen di gërëm di leen sant. Mm-hmm. ñi leen di dalal jàmm fii si dëkk bi. di rafetlu liggéey bi nga xam GFM mi ngi koy def. alors di dem décentraliser ñëw si dëkk yu mel nii du ñu jox la l'opportunité pour ñu mën a exprimer wu. alors artisanat nag comme ni ñu ko waxee rek. donc c' est un euh, dafa nekk secteur boo xam ni am na lu toll ci cent vingt corps de métier. donc presque plus de la moitié de la population sénégalaise s'exerce dans ce secteur là. mais ñu nekk ñoo xam ni xëy na. Euh, ay jàmbaar lañu et que yaakaaroon lu dul suñu liggéey. mais malheureusement dañu xaw a bàyyeeg suñu bopp un peu. Mhm. alors ñuy tàllal loxo nag. di bëgg aussi ñu ñuy fekk si comme ni ko léegi ni ko monsieur le maire waxee léegi mhm. loolu tey dina rafetlu nañ ko mhm. li nga xam ne président wax na ko nañu jël quinze pour cent mhm. du du euh, national jox ñu ko loolu aussi dina dina am njëriñ parce que problème yi ñuy faral am toujours aussi mooy Pape nit ki métier rek la jàng boo jàngee sa métier nag da ngay boo paree da ngay bëgg taxawal sa entreprise mais problème yi nga am aussi daan ko jàkkaarloo mi problème mu accès au crédit au financement mhm. parce que da ngay faral dem tey ba gi nga xam ne dafa xam métier mhm. bu bëggee taxaw si benn banque banque bi pour mu financer la foog mu laaj la yan apport nga am yan garantie nga am mhm. te ki nga xam ne nag métier rek la xam moom la jàng mënul am garantie bi xalaat si ay a xalaat mu a mën accessible à fonds là pour pouvoir travailler ndax li ñuy liggéey si kër yi rek dañ koy yor te kër goo dugg lu mu néew néew néew di ko fekk benn artisan te bokk ñun nu am delloosi ko si biir kër yi kon ñu ngi tàllal loxo ak di rafetlu aussi nag liggéeyu président de la république ak aussi xam nañ ni bàyyi na xel loolu moom euh, artisan lu ko ñor la lu ko soxal la mais surtout ak seen ak PDG mu Youssou Ndour mhm. gis nañ fi mu teg artisanat mhm. kon moom it vraiment ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñaan dans l'avenir mhm. euh, dajeeg moom gën a lëkkaloog moom ndax xam nañ ne am na lu bëri wax mën nañ def kon daal vraiment kontaan nañu di gërëm waa Ndar nag di nuyu suñu suñu tonton euh, Golbert Diagne nga xam ne macha allah lii lépp moom la moom yaakaar na ne moom mooy Ndar kon képp ku ñëw moom ngay jàppale kon encore une fois de plus ñun dañ ko def idole si moom la ñuy xool moo tax ñun Ndar ku ñëw fekk ñëw rek fekk ñu fi lépp ba nuyu euh, le maire ak lépp kon nag jërë ngeen jëf. jërëjëf kontaan nañu merci beaucoup ex. voilà à prochaine. voilà donc merci Pape Cheikh loolu moo nekkoon euh, reportage bi jot a def ak kaddu yi nga xamante moom moo représenté les artisans de la région de Saint-Louis. voilà donc mooy moo leen représenté. ñu ngi wax rek bonne chance euh, artisans yu mag yi nga xamante ne ñoo ngi fii Ndar si vous nous rejoignez ñu ngi àndandoo ak yéen. Euh, fii ci euh, place Faidherbe bu tey yeewu leen bi euh, ñu ngi jëm nag 10 heures ci télévision Futur Média bu leen fàtte ni ñu ngi tollu ci GFM chez vous El Hadj Ban Mbaye Garmi gardien du temple waroo kenn mbay Pape Cheikh artisanat nag waaw président Macky Sall am na vision waaw yàgg na fi de uh-huh. am na góor gu baax gu naan Ibou Gallo Thiam Ibou ci am kooku dëgg-dëgg mooy maam Marie Guèye Seck. galo buri galo buri Thiam waa galo buri Thiam waaw très bien. Euh, dëgg-dëgg moom bi noo inauguré premier ligne ca Paris. moom la colon yi yabal mu dem Paris. ñooñu dañu dañu fonkoon ak dañu fonkoon loolu artisan ah. kon dëgg rek liñ ne président Macky Sall am na vision uh-huh. ba dénk leen lii mu leen dénk lu am solo la ah. loolu moo lay wane daal dëgg-dëgg euh, état yi continuité la uh-huh. mais vision daf ci baax euh, Baye Cheikh te démb la woon ah non démb la parce que dégg naa Galabouri Thiam mooy borom médaille yi <laughs> dëgg dëgg mooy góor góor gu rafet nga ak ca kaw. wallaay dee Sambante Diop. wallaay gaw la bu kii dëgg-dëgg ñaaña bu mag ba. wallaay wallaay ah ci artisan mag ci la bokkoon. wallaay Cheikh <laughs> jërëjëf euh, ñoom nag ñu ngi leen di nuyu soxna Thiam euh, bu télévision Futurs Médias euh, Marie Guèye Seck. Ah, waaw Galabri deux fois voilà Galabri ñaari yoon <laughs> ñu ngi ak monsieur Biteye. monsieur Biteye ñu ngi lay nuyu directeur cabinet maire bu Saint-Louis defe naa ni léegi dañuy ñëw. Euh, comme dëkk bu ñuy dem ak mairie bi dañuy waxtaan ci enjeu ak perspective yu euh, dëkk bi waaye ñu ngi kontaan lool euh, ci taxawaayu mairie bi ci programme bi nga xamante ni nas nañu ko tey ñu ñëw ànd ci ak yéen bu ngeen demee ba ndar toll foo xamee ni waxatuma doomi réew mi waaye même ñu bokkul Sénégal dañoo fonk ndar yéen ñu dénk leen ndar mm. tey defe naa yéen a ngi ci liggéey bu am solo pour gën a suqali ndar Euh, macha allah dëgg la balaa loolu d' abord damay sant yàlla julli si salaahu alayhi salaam. Mhm. ziar ñu fi nekk ñëpp ziar doomu ndar yu fi teew. ziar leen yéen. jërëjëf ziar leen sargar leen vraiment parce que wax nañ ko mais dañ koy waxaat. Mhm. seen liggéey bi am na solo parce que nu mu ko waxee léegi ba ñuy wax décentralisation. localisation walu woon yem ci niveau institutionnel il fallait que nit ñi liggéey bi fu mu mënti toll ci suuf ñu jëfee ko loolu ngeen jëfee tey te dina tax au moins di ngeen fi wane loo xam ne nii wax dëgg yàlla am na ñu ko xamuloon ci ndar dina tax aussi nit ñi aussi jege leen en tant que service de média mais surtout par rapport ak lépp li nga xam ne war na ci mairie war na ci liggéey bi ci koom-koom bi je pense que loolu war nañ leen ci gërëm mhm. encourage leen mhm. et j'espère a def wax ci kaw loolu nag dalal leen sargal leen gëm naa ne lu ngeen fi gis war na ne ne ndar teraanga lañ am mhm. euh, suñu ñu koy moo ñu koy jàngal Golbert Diagne xale yi ku ci tuuti xam na ko boo demee ci kër ku mënti doon boo ñëwee balaa waajuram di la ko wax moom moo lay jox ndox donc kon dal leen ak jàmm ñu ngi leen di euh, a moom xam nañ ko dañoo war a liggéey ngir dëkk bi rayonné ngir dëkk bi am am am gis-gis am koom-koom am taxawaay bu dëgër si lañ nekk am nañu commencé woon am fuñ toll ñu war kan ñun aussi ñëw jëlee ko foofu yóbbu ko feneen ba ëllëg bu ñu fiy jógee fañ ko yemale ñeneen ñëw jëlee ki foofu yóbbu feneen je pense que loolu moo si am solo mais lu gën lu si lu leneen li aussi mooy que ñu fexe ba nga xam ne secteur bu nekk ñu gis avancement parce que man noonu laa jàppee progrès suñu maire noonu la jàppee parce di wax ne aussi moom mu ngi leen dalal mu ngi leen di ziar je que on a eu à se avec seen ay service dalal na leen te tey incha allah il sera mhm. dina fexe gisee ak yéen taatagal leen mhm. mais surtout Euh, ñu xam ne suñu suñuy perspective mooy dans tous secteurs. secteur bu nekk ñu am lu ñu ci perspective yi ñoo ma gën a ñoo ma gën a soxal parce que euh, euh, li ngeen jot a def ba noppi mm. ñu ngi sant. yàlla na yokku mais ci projet yi. Mm-hmm. j'ai très envie nga ngeen dalal xelu doomu ndar yi. Mm. bu ko defee ñeneen ñi nga xam ni itam dénk nañ leen ay ay région ñu jéem a def ni ndar euh, euh, fi mu tollu tembe euh, est-ce que bëgg nga ñëw tuuti ci ay mbir yoo xamante ni moom la mairie bi prévoir pour gën a mën ndar jërëjëf en fait yeewu leen c'est un concept bi ma bi ma bi ma neex lool parce que fi ngeen toog nii mhm. def ngeen fi tour d'horizon de l'économie de Saint-Louis structures yeeg fépp fu ñu si mën a sukkandiku mhm. je pense que par rapport à ça man si laay sukkandiku pour wax leen si lan lañ jëm mhm. première chose bu ñuy xool dañ naan le secteur la pêche mhm. da di secteur boo xam ne gars dañ naan 80 pour cent parce que statistique loolu la wax mais aujourd'hui fu ñu toll buñ ko buñ ko actualiser mën nañ ne 90 pour cent peut que mooy économie Saint-Louis donc ñun suñu perspective mooy que au délibération ay amoon na fii ñu waroon ko appliquer appliquer wuñ ko ñun ba ñu ñëwee dañ ne non dañuy appliquer taxe mais aussi il faut que ñu revaloriser ko tey jii nii am na benn équipe bi bu fi jógee dem si Kayar Mbour Joal pour xool exactement lan moo fa am pour ñu mën ko def loolu da dans la perspective de euh, suñu demee ba si kanam ñu xam ne koom-koom bi pêche dugal na ko dëggantaan mais pour que mu dugal ko fi aussi pour que mu dugal ko fi aussi il faut que ñun en tant que commune ñu structurer ko mooy lan maanaam ñu aménager parce que bañ doon liggéey au début quai de pêche moo fi nekkoon mais dafa xatoon wala dafa méngoo ak jamono jooju. Mhm. ñu dem ba benn instant loolu noonu yaatu. muy yaatu dafa développé léegi fii nii ay 400 camions frigo dañu fi dugg. Mhm. loolu boo koy defar foog ñu aménager leen. d'ailleurs moo waral coow li am fii nii Gendar si cimetière bi. Mhm. muy xat il faut que loolu ñu aménager ko si lañ nekk le 17 bi incha allah dinañ def ouverture des prix du marché pour que defoo benn plateforme war nañ am aménagement yoo xam ne war nañ ko defar électricité nettoiement beaucoup de choses donc pêche bi ñun jàpp nañ ëllëg si luy ëpp luy dugal koom-koom si biir de Saint-Louis moo ñu sukkandiku Saint-Louis jëm kanam pêche lay doon mhm. mais am na leneen loo xam ne aussi Euh, buñ si jógee si pêche parce que ñaari ween la wax la ndar am ñaari ween benn bi mm. pêche la benn bi tourisme la mm-hmm. aujourd'hui boo xoolee temps yee def nañ fi marche tourisme sooxe na am na mm-hmm. problème mm-hmm. donc ñun bien que du pour le moment parce que c'est une day nekk compétence transférée décret moo génnagul mais euh, régalien mais ñun on s'est dit lu mu régalien régalien ñun war nañ see def dara ñu ngi jéem a di xool benn projet pour orienter parce que tourisme na fi ndox la ñu am donc il faudrait que ñu jéem a un tourisme de plongée on va aller vers ça on est en discussion pour que ñu mën a ñëw parce que tourisme plongée non seulement autour de l'île mhm. ndox mi mën nañ ko def mhm. mën nañ dugg ci biir ci ci mais aussi boo xoolee ci histoire mhm. Saint-Louis lu bëre fii la commencé ba ñuy ñëw tubaab bi ci ay 1800 1700 ay bateau la ñu doon andi c'est le plus grand cimetière de bateaux du monde

koom bu jëm moo tax vous l'avez rappelé FONGIP mu fi BN2 mu fi yeneen structure ñu ngi ñëw euh, ANPEJ dina fi ñëw léegi à 11h nous allons visiter Sorogna là bi nga xam ne si lañ prévoir au moins utal leen fa benn structure bi nga xam ne fa mën a toog loolu yëpp da di ay affaires yoo xam ne de manière mhm. ramassée c'est les mhm. trois secteurs mais aussi am na beneen troisième secteur bi may wax mooy l'agriculture mhm. dañ naan l'agriculture bon si vallée bi la mais au moins fii Saint-Louis am na yoo xam ne war nañ ko fi mën def pour que au moins jeunes am occupation parce que diggante fii ak vallée bi sorewul mhm. jógee fii dem xëy foofu noonu am na fi GDS ak yeneen structure yoo xam ne bon mhm. c'est moderne mu fi mhm. mais war nañ si mën a dem mais am na am na loo xam ne aussi suñu projet la mooy au niveau industriel au niveau industriel il faut que ñu xam ne Saint-Louis transformation produit halieutique transformation produit euh, produit yooyu yu bëre. Mm. mais lu tax amu fi. c' parce qu'on n'a pas de zone parc free maanaam amuñ zone industrielle. te on prévoit avec l' defar benn zone industrielle bi nga xam ne dañu permettre ñu def ay mm-hmm. nit ñi liggéey fa surtout jigéen ñi liggéey fa jeunes yi liggéey fa. Mm-hmm. je pense que de manière ramassée bu dee kii na. Mm-hmm. yooyu laa mën xam ne c' est ak euh, borom xam-xam yi en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax. Euh, monsieur Biteye yaay directeur de cabinet Seydina Ababacar euh, Seydina Ababacar Biteye ah. voilà. bu. alaaji Malick jàkkaarloo moom mairie mairie mairie bu bu Ndar ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf jërëjëf a gën a neex wala Ndar a gën a neex. non loolu mënul nekk yooku leen ko. mu neex non non non non non a gën a neex. non non non a gën a neex Ndar. asalem gën a neex Balakoos. am lu leer laa wax dégg ngelaw lii di la ëpp moom bëriwul foo koy jël géej gaa ngi nii dex gaa ngi nii si diggante benn dex bu ndaw lii ndar rek la am damay woo sama paa bi léegi mu wax la mooy lan yàlla baax na kontaan nañu jërëjëf ayca léegi nag euh, dañuy euh, gërëmaat ñëpp ah. euh, surtout ñoom ñi nga xamante ni ñoo ci jàpp la Rosa papa fa lay ndekkee xanaa rek ah, léegi dañu ñëw nag ba tey ci yi ñu leen préparé Mado euh, daga gëstu euh, ci euh, ndar ak tàkkusaanam signaar yeeg yi nga xame ni yàgg nañu xam ni ndar la fekk baax waaw Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek euh, maa ngi la ko doon wax sànq Ndar dafa nekk dëkk boo xamante ne dëkk cosaan la Pape Cheikh. Mm. ba tax na dafa am lenn loo xamante ne nag daf ci am solo loolu. Mm-hmm. loolu nag ñi ngi koy tuddee li nga xamante ne moom moo di fanaal waaye ñu waxee Signar tamit ah, dañ leen di wax rek ci quatre communes yi ba tax na Signar tamit fekk na fi baax waaye ñun nag tey bi pa dañu choisir li nga xamante ne moom moo di fanaal Pape Cheikh mu nekk nag lenn loo xamante ne dafa am solo représente li nga xamante ne moom moo di Ndar ndax waxoon naa la ko ca ndorteel ba cosaan nañuy fësal ku ci nekk wane li nga xamante ne moom nga am jóge ci seen quartier bu ñu jóge foofu nag dañu tase fi nga xamante nag moom moo di place Faidherbe fii nañu toog tey waaye lu ñu def Pape Cheikh am na ay soxna yoo xamante ne yàgg nañ wooy fanaal ñu am chance nag dajeek ñoom dañuy dem xool ñoom lan nañ ñu proposé bu ñu ñëwee nag ma wax la historique fanaal ak njëriñ ji nga xamante ne moom la amoon te ba tey mi ngi fii ci biir ndar ndar bii ma bokk ndax waxoon naa la ko ca ndorteel ba waa la jóge euh, duggee docteur bu baax mais nañu dem xool élément bu ma ñëwee nag ma gën la tasal li ci am yëpp ci biir. ci nar defaraat mbedd yi ci nar wateel jumaay ay million boole ko jumaay ja lappyaam pugaay musigal bolok ma bay fari jaay ma job jaalo ba cambaada li tax ñu daan way fanaal fanaal dafa di cosaan boo xam ne dafa yàgg ci Ndar boo gisee nag tubaar fakkal la yi nekkoon fii ci Ndar nekk fecc kër can ci sundoone ñoo daan defar fanaal bu nu ko defee woo suñu kilifa yi nag nu ànd ak ñun di fent ak ñun nag bu final bi de see weer ndu commencé bés bu ne nuy am lu nu fent bu fekkee ni ku nu ko tuddee la nu way ay maamam ñu fent ay maamam bu fekkee ni tuddee wu nu ko kenn it dana bëgg dëkk bi neex ñu toog di wayantu rek suñu ay way fa tabaarakallaahu bu nu wayee ki ñu tuddee final bi ba pare ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal final bi te nekk ca. kenn ku ci nekk te joxoon nu sa ay maam yowit nooy la bu guddi jotee nag fa tabaarkalla ñu fa fanaan bi jébbal borom noonu day moom lan daan defe fanaan yi. lii moom la ndar moomal boppam muy fanaal 39 45 après guerre mondiale bi ci leen ko jëkk def fii ci ndar fanaal bi mu jëkk liggéey Notre-Dame de Lourdes église bi nga xam ni moo ne ci faubourg de Sor moom la jëkk liggéey fanaal bi nga xam ni moo gën a marqué ndar nga xam ni Sarr dootu ko fàtte mooy diggante Ngalandou juuf ak ki nga xam ne mooy président Lamine Gueye fanaal boobu li taxoon mu metti dañu tomboon ak jamono politique ku ne say mbokk ànd ak yow ku ne toot fakal la say xarit say am di jàmm ëmb la nu ñëw fii ci fi xam ni mooy Baye fii ci Ndar tudd nañu fi fit boiñee faral di problème de l'école médecine pharmacie de Dakar ouvrier boigna sow flici vous n'avez pas perdu un seul an. tudd fi Abdoulaye Mar Diop Faral tudd fi it nga xam ni mooy Abdoulaye Diop Chimère Faral bu yàgg loon fi tuddee le maire de la commune ki nga xam ni mooy Mansour Faye Faral loolu nag dafa ànd ak cosaanu ndar dafa ànd ak cosaanu ndar ànd ak li ndar moomal boppam. ndar rawantakaal fanaal yooyu mooy sunu cosaan mag ma na ko seetaan xaleel mën na ko seetaan Sénégal déglu leen mil fey naa yeewu leen li mu def ma su am moo naatal Sénégal boole xool yi yëpp li benn mu sigal Sénégal way wi neex na de ah ndeysaan ah Malal nag wane na wax dëgg fa yàlla fii la bokk waaw a jaabante mel ni ku ñu dénk ndax waaye fii la may fekk dina xam ne ñaari doomu ndar da ngeen ñibbi de tey <laughs> ñoom ñoo fi tase ah, ñibbi wuñu ñoo bañ xam xamu ni Pape Cheikh am na fi kër kan sa titre foncier fa ñu xool ko ci registre <laughs> donc euh, Pape comme ni ngeen ko gisee rek ci élément bi jàll ci waxu fanaan lañ doon wax hmm. naam ñoom wax nañ historique bi ñan ñoo xamante ne ñoom ñoo doon def fanal parce que boo ko doon dégg nit yi dañ doon fone ay kas yooyu mais déedéet fanal boo ko déggee daal affaire cosaan la boo xamante ne dañ ko day def dañ ko doon organiser uh-huh. buñ ko doon organiser maanaam Pape Cheikh dafa am ay quartier yoo xamante ne dañ doon participer quartier bu nekk nag dafay tabax li nga xamante ne moom moo di fanal fanal nag boo leen ko déggee maanaam lenn loo xamante ne dañ koy tabax da ngay jël bant jël ay kayit former lenn loo xamante ne moom moo nar a représenter sa dëkk boo ñëwee nag ba nga xamante ne moom moo di fii ku ci nekk nag ñu teg benn jury ku ci nekk indi groupe am ñu way waye seen cosaan ba pare présenté seen fanaal su boobaa nag nañuy choisir euh, ñan ñooy gagné mais faut savoir que nag fanaal dafa amoon ñoo xamante ne moom moo di seen spécialité ki tuddoon nag pas alpha moom moo ko doon defar ba léegi nag fi mu ne nii génération bi mi ngi dox ba ay doomam ñoom tamit fi mu ne nii ñoom ñooy jël loolu saa yu fanal amee ca ñoom ngay dem ñu defaral la tabaxal la ba pare dañ koy nëbb ba kenn du ko gis parce que dañ doon wane li nga xamante ne moom moo di seen taaru dëkk léegi nag da gis gis ku mel ni quartier Loda quartier Loda nag ñoom d'habitude lan lañ doon defar dañ doon tabax li nga xamante ne moom moo di juma bu ñu jëlee juma jooju nag jël première mairie bi nga xamante ne fii la nekk ñu teg ko ci bu ñu jógee nag ànd ak seen ay woykat ñu déguisé wu def ay aada ak cosaan takki seen i càkk takk seen ay palmaan di woy di woy bu nu bàkkee ba noppi beneen quartier waa Sanca ba ñëw it ñëw waa ca ba nag ñoom fanaal bi ñu doon présenté maanaam moo doon assemblée nationale bi nekkee fee dakaar Dakar moom dañuy construire à base de euh, comme ni ma leen ko waxee woon sànq bois ak ay kayit ba pare décoré ko ba nga xamante ne bu feeñee ci nit ki dina am contentement xam ne ni kii fësal na li nga xamante ne moom moo di taaru dëkkam waa ten jigéen ñëw ñoom it ñoom ñooy waa soor ñoom nag luurlu bi nañ doon defar waa Guet Ndar ñëw ñoom it nag defar li nga xamante ne moom moo di gaal ndax xam ne ne waa Guet Ndar ñoom lépp loo xamante ne mm. ci wàllu jën la wala ay pêcheur ci yooyu nañu dox waa sundee na ñoom itam ñëw ñu tase nag ci bayaal bu mag bi macha allah fu ñu toog tey woy wane seen bopp simb gaynde yi topp leen yeneen ñoo xamante ne dañuy déguisé wu ñëw topp leen dox way bu ñu paree nag benn jury choisir ki nga xamante ne moom moo gagné bu ñu gañee nag ñu jox leen ndam li ñu dem béggee foo mais comme li ñu koy waxee tout le temps jàmm ji moom moo taxoon wane seen ay taar nit bañ fàtte fu mu bokk xam tradition wu dëkkam xam cosaanu dëkkam mais faut juste kenn ki nga xamante ne moom la ñu dugaloon Pape Cheikh ci reportage bi moom moo di ajaratu euh, Daawur sekk doonoon woykat bu mag ba léegi nag ñu dem fekk ko magal na am na ñoo xamante ne jël nañ relève bi waaye moom nañu demoon seeti ci biir élément bi mu wax ñu woyu njëkk ya bi u uffet boiñi di fi ñëw ñu defal ko fanaal mm. ndax saa yu kilifa doon ñëw ci nañ doon def tamit ay fanaal di fàttaliku nag décembre la doon am ak jëm ci janvier bi donc ci nañ ko doon def nag mu neex bay bëgga dee waaye allah ji euh, Maxu Meng moom it tamit ñu di ko jaajëfal waaye lépp jaajëfal boobu Pape Cheikh dañ koy teg ci loxo euh, Alaaji Golbert Diagne ndax moom moo ñu jàppale wan ñu gind ñu ba nga xamante ne xam nañ foofu donc tey moom laa leen indiloon te comme ni ñu koy waxee rek ndar dëkku cosaan la mhm. dëkku taar la ba tax na ku fi ñëw doo fàtte sa bopp boo demee tamit dakaar ba nga nekk du tax tamit nga fàtte sa bopp ndax delluwaat cosaan dafa am solo xanaa xanaa rek euh, Baye Cheikh di la wax nii ndax panaal buñ ko masaan daan lël ñaari weer ci lañ koy fent Ndoumbé Daour sekk moom mu wax moo jabu ñoo bokk ndey ak baay Maxu Mbeng moom ci bët géwél yu mag yi nga xam ne nii ñoo nekk fii ci ndar ci la bokk waaye maa ngi lay wax dara panaal dafa nekk loo xam ne lii régulariser la daan def da daan dajale gox yi gox bu nekk nit ña jóge fa ku ci nekk génne sa talent su boobaa nag dëgg-dëgg la cay génn kanuy way moom moo koy joxe mhm. ba ñu masaana woy yàgg na de lool de boobu datawul tey mhm. ba maar génn génne million ba hmm. mu ñaaña maar jóob loolu loolu loolu boobu boobu boobu million ça représente alors du parle représente boobu dërëm bëriwul eh, boobu boobu mbay boobu boobu mbay pour nga gësam sax mu xaalis génn sax wóorul mais ba ñu wooyee ñi dëgg-dëgg euh, Ablaye Diop maar mi nga xam ne nii tubaarkàlla moo wutu bàyyi daa bàyyi daa ma ko wutu ba mu génne million ba keroog àddina xaw na tukki ay day dem jërëjëf jërëjëf El Hadj Amadou euh, defe naa euh, du ñuy am rek ci histoire ak euh, fanaal ak artisanat beeg yeneen yi waaye tey ci suba wax nañu leen ko bi ñuy soog a door ak malal ni ndar itam dëkku sport la waaw hmm. waaw dëkku tàggatam la Baye Seex wax nga dëgg mais euh, du ñu sax ñëw ci li nga xam ne moom mooy actualité bi nga xam ne moom moo xew mooy lu tombé suñu génération. Mm-hmm. mais dañuy remonter histoire. Euh, ndax ñëpp a ngi dégg ASC La ay ASC La Linguère donte dafa nekk ci jafe-jafe mais équipe boo xam ni am na jaar-jaar. Mm-hmm. am na fu mu jógee am na lu mu def Sénégal. Mm-hmm. dañ lay dëgtal euh, suñu benn xarit boo xam ni xale la naam waaye xel mi ak histoire bi màcc na ci bopp bi ba nga xam ni faram-fàcce nañu ci simili. histoire Linguère bu Saint-Louis muy Bilal Dieng nekkoon bras droit Amara Traoré jamono mi nekk équipe nationale nekk xaritam nekk un Saint-Louisien authentique ñu déglu Bilal mu wax ñu histoire Linguère après nu ñëwaat démarche mi ngi sosu ci réforme Lamine Diack en 69 70 fusion wu Saint-Louisienne ak euh, Espoir de Saint-Louis je crois que année bi dañ ci teg benn année rek Linguère remporté première coupe du Sénégal de manière très historique bu ñëpp di fàttaliku avec les 4 B Babacar Ba Badou Gaye Bay Touré donc euh, bi ñu si jógee Linguère euh, def naa ni finalement doon nañ wax sax Linguère équipe bu parce que Coupe du Sénégal remporté na quatre fois. am ah, kay ak ñaari final yu nu perte. bon Linguère yaakaar naa ni en dehors de peut-être Jaraaf Gia Gorée euh, mooy équipe bi ëpp li mu fournir ay internationaux je crois que kenn du naatable que le seul ballon d'or sénégalais ah El Hadj Ousseynou Diouf. produit Linguère la deux fois double ballon d'or africain. avec l'arrivée de Amara Traoré en 2007 je crois que foofu aussi Linguère inscrit euh, bind na ci page yi gën a euh, rafet yi gën a ràññee ràññeetlu ci football Sénégal ndax d'habitude Coupe du Sénégal la daan gagné mais diggante 2007 2008 2009 je crois que Linguère étant nekk deuxième division gagné na Coupe du Sénégal yéeg. en première division une première année mu jël troisième année tombé première année wu championnat professionnel bi ñuy vivre Linguère remporte ce championnat la invaincu maanaam def na parcours bi amul défaite li ma si gën a retenir mooy que ñetti but kese la encaissé si jamono jooju donc euh, je crois que boobu loolu nekk na page bi yi gën a leer yi gën a neex ci fu ci ci ci ci ci jàlloole si existence su Linguère. bu Linguère jël coupe du Sénégal euh, Dakar la woon. boobu Golbert doon reporter di wax j'imagine l'ambiance dans les rues de Saint-Louis. waaw waaw boobu maa ngi fàttaliku c'est ça doit être la finale contre les Saltigué ah si 1-0 but de Sylvain Valera sur un renversement de Nsangom. li si gën a marquant ci finale boobu mooy dañ doon wax côté mystique ak yooyu waa Rufisque miine nañu miine nañu yoon bi daal. parce que Linguère mënul dem Dakar final yi te du jaar oh. mais pour wane ni Linguère équipe a mag a mag la ah ils ont trouvé euh, ils ont contourné ce ce ce problème psychologique en prenant l'avion jéggi Rufisque waa ci Dakar donc euh, def li ñuy def gàddu coupe bi indi ko donc euh, final boobu defe naa ni bokk na ci final yi yi gën a yi gën a neex. li ngeen daal defe naa ni bu wax football Sénégal daal il faut ñu ñu ñu ñu jox ko si cëram parce que bind na ay page page si page yi gën a rëy ci ci footballu footballu Sénégal bi. Bilal Dieng la ñu doon euh, déglu moom wax na ci euh, Linguère bu Saint-Louis histoire beeg jaar-jaar bi fii ci Ndar mu ngi noonu équipe la nag boo xam ne Baye Cheikh mu ngi judd ci benn fusion mhm. ndax dañu amoon espoir de Saint-Louis ak Saint-Louisienne mhm. ñu fusionné ñaari équipe yi en 1969 mhm. loolu moo jur Linguère bu Saint-Louis d'accord nag yàgg na am joueur yu mag ndax loo gàtt nopp gàtt nopp dégg nga El Hadj Ousseynou Diouf. Mhm. le seul sénégalais double ballon d'or africain. wallaay deux fois ballon d'or. bu ñu bu ñu bu ñu yéegaatee tuuti. Mhm. dégg nga Badou Gueye. Mhm. dégg nga ki nga xam ni moom mooy footballeur yu mag yooyu nga xam ne ñoo ñoom douzaine. ak ñi nga xam ñooy ñoom Bamba Sano. li ngeen dañu amoon benn trio bu ñu bu ñu dubbee woon les ñoo ñu ñooñu ñooñu équipe bu ñu mës a jàkkaar lool doo nelaw. ah ndax mën a football. bi Cheikh Seck bàyyee bàyyee gardien équipe nationale bàyyi góol ki ko wuutu Samba Fall clando. léegi waaw ah bon mooy entraîneur gardien yi Saint-Louis bu xëyee dawal clando bari la dépense am dem tàggat xale yi. kooku boo demee Caire ca Égypte di dëkk boo xam ne moom mooy la plus grande capitale africaine boo nee xam nga Samba Fall loo jënd ci marché dañ la koy may. ah ndax jawaro yu mag ya mu fa def. ndeysaan ci wàllu tàggat yaram tam am na lu bëri loo xam ne ndax def na ko ci wàllu basket jigéen ñi l'équipe la plus puissante du Sénégal le Saint-Louis Basket Club. fii la ñuy entraîné Marius Ndiaye. jafe-jafe ak mag ñàkk mo ñàkk moyen moo tere sport bi développé. mais naka jekk c'est une ville de sportifs. où les populations dañuy pratiquer sport yëpp. ndax dañuy def natation da ngay nekk xale bu ndaw di traversé dex dex gi. Badlin Sikki bi xam ne toj na àdduna ci jamonoom. ba ko tubaab bii gis da ko fekk ci pont bi ngay sànni cent francs mu plongé jëli ko. ndeysaan tubaab bi jigéen bi xool ko ab belge xool morphologie am waxtaan ak toj France toj Amérique dóor tubaab ya nekk champion du monde ñu rey ko ci buntu këram. oh Malick ndax booba ndax booba racisme toll na foo xam ni. Mm. mënuñu woon supporter nit ku ñuul. jóge ci dëkk bu ndaw nag bu ne bu mel ni Ndar. Mm-hmm. nekk champion du monde. mu génn guddi ànd ak xaritam dem jëli po di wàññeeku ñu doxee ginnaaw dóor ko ñaari bale fetal loolu moo ko génnee àdduna. Oh ñu suul ko ca ca dëkk tubaab ya ndar ndar yi di dugg di génn ak doomu ndar yi ba ñu jëlee la desoon ca moom indi ko fii mhm. defal ko bàmmeelam mhm. saa bu nu yeewoo dem ca bàmmeel ba defal ko ay dog ngir yàlla seral yaxam daj du ko gën a rëy ñun on se rappelle de ça quand on était encore petit ah, ah. ak euh, si kii Malick Fall euh, mhm. daf nay jaloore yu ah. rëy aussi Amara Traoré Amara moom tam doomu ndar la mag euh, bu mag la waaw xam nga tam mënuñu wax tàggat yaram bàyyi te wax ñu ma wadd wadd ma wadd wadd ma wadd nga xam ni bien ba may def sixième secondaire. Uh-huh. mu nekk entraîneur Linguère. Uh-huh. ñu dem entraînement Me Babacar Seye. gars yi def renversement ñu def passe waa ji contrôler raté centre bi mu arrêté entraînement bi. ba waaw daal di dugg ak lunette ya ak baat bi daal di xuus ba ci terrain bi ni ko le football c'est l'intelligence en mouvement. le contrôle du ballon détermine la suite de l'action. <laughs> tey jii ah. les plus grands entraîneurs du monde ils tiennent ce discours là au plus ah, grand jour du monde cool tàgga caram ñun kenn mu ñu des. waaw rocci ngeer lañ ci. dëggal li da ca des nag. Ah. jox xapaa bi. waaw jeex booy bi si ginnaaw mu ñëw àggali booy bi si ginnaaw booy bi booy ñëw. Ah. booy bi commissaire. mais bàyyi te di nga am di nga loo xam ni kenn mosu ko am Sénégal. dëgg la ndeysaan. depuis que nekk si tele ba léegi j'ai jamais voulu être sur un plateau ak golbert. ndeysaan je vais pas le eh, eh, ah, doo ko def doo toog. doo toog ak léegi da ngay jooy dafa jar ngay jooy. waaw ba neexee jooy du tax ngay jooy. lool moom xam nag man xam naa ko. daf la jur yoo kese. bàyyi ma dem rek. mu jur la jur yoo pare ngay jooy. bàyyi ma dem rek waaw. dafa tax nga bëgg a jooy. kàccu leen lii waay xale yi waay. macha allah ndeysaan ndeysaan ndeysaan. cee te te te te. eh Mbaye. te te te te te. Ali Fort waay yaram daw na Baye Cheikh ñu yemale ko fi Baye waaw Baye Cheikh hmm. yaramu ñëpp tey daw na tey hmm. Malal Junior wax na dëgg ku am baay bu mel nii ak lii mu représenté ci Ndar représenté ko ci Sénégal def lii mu def nga xam ne nii képp koo xam ne kii jaar na fi ak ci gouvernement boo mën a bokk ak ci parti boo mën a bokk léegi léegi mu dégg ndéy loo xam ni ñi dëkk ci dëkk bi duñu ko dégg léeg-léeg autorités yi woo ko wax ak moom loo xam ni ñi dëkk ci dëkk bi duñu ko dégg te dar du ci génn muy doomu ndar bu baax di doomu ndar bu gore di doomu ndar bu yiw di doomu ndar boo xam ne bilee boo xoolee ndar rek bu ñu nee ndar sa dem ci dem ci golfeer dëgg-dëgg bu jooyee Golbert war na jooy ku nekk ci plateau war na jooy nii mu jooyee tam Sénégal yi bu ñu ko saanee dëgg-dëgg ñoom tam seen xol dana fees waaye gàcca ngaalaamaa kii toog yàqul dara réew mi yàqul dara Sénégal lépp lu ko war ci réew mi def na ko kooku nag mooy Golbert Diagne waaye na biir waaye micro waay wallaay wallaay jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf oh. léegi dama bëgg a woo El Hadj Man Mbaye Garmi aada aada Koli oh. mu euh, euh, am lu mu ñu mosal tuuti démb lañu ko découvrir mais nañu ma ko tegal ngeen déglu ko laataa ñuy waxtaan ak euh, suñu papa Golbert acca ana samay doom a da a yow yaa nu yëngal a na ma xool ku bëgg sa yaay sa loxo ana kuy caat e sa loxo groupe Futurs Médias jam meer dundal di dundal di dundal bismillaay ma jël sama xalima fas yéene bind fas yéene bind ci Alioune Golbert du xaar ba nga jóge fii ma sooga lay way su boobaa dañ ma laaj est xamoon naa la Golbert septembre 41 da gane si àdduna fii ci Ndar fee ca Rue de France Golbert Paris Lomé Ndoye sa yaay Malal Diagne sa baay Malal moome nga dippee Malal Signor Golbert alxuraan daal moom nga njëkk feesal te yaa ngi jàngee ca daara bu Seynou Sarr Golbert jaar nga RTS nombal tànk yi fa takk bëri na ku taxaw di wax sa jaar jaar fi lay fanaan Golbert ñun ndax duñ la xam jaañ tànk jóge woo fi waaye bis boo fi jógee la ñuy a xam Golbert ay fa dara jaan Golbert Golbert dundal ndar gërëm la waxal Golbert dundal di seeteel bi lay kaddu benn la ay ndar su amoon ñaar ñu mel ni Badara Ndiaye Golbert royukaay nga bi mu ni maa nga ñun nañu sant yàlla ba ñu amee ku mel ni Golbert boo jiitaloon sa intérêt personnel rek doon heure bi tabax nga ay château Golbert coow bi ci buntu teen bi gaañ gaañaamul baag la lu ne yaa ngi koy dégg taxul nga bàyyi sa loxo Golbert fréquence teranga li dem mooy bàkkam efficacité rapidité crédibilité ñu ndar duñ la xam jaañ tànk jóge fi waaye bis boo fi jógee la ñuy soog a xam Golbert yàlla na Alioune Badara Diagne Golbert ndar gërëm dalal xool bee dundal di dundal di dundal waaw waaw Aliou Badara Diagne xool bee sal biram dala minima xool bee dundal di dundal di dundal ba tey Aliou Badara Diagne xool bee sal biram dala waxal xool bee dundal di dundal di dundal Badara Diagne xool bee loxo yëpp nii loxo yëpp nii loxo yëpp nii ci xool bee loxo yëpp nii ci xool bee jot na ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Ada Coly. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. merci Ada. Euh, ñun ndar ñun ma ñëw ñun ndar du ñu xam jëmm ji toog waaye bis bu fi jógee ci la ñuy soog a xam Aline Badara Diagne Golbert ku ko tàcc yàlla na nga fekkee déwén. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf merci Ada Coly ñu ngi lay gërëm bu euh, baax. Euh, di gërëm tamit euh, encore waa Ndar yëpp ah lu ñu lu après du ñu xamati sax lu ñuy wax euh, ndax émotion bi yal na yàlla yàggal taxawaayam moom El Hadj Golbert Diagne def nañu itam leneen ci moom bisu. waaw. <laughs> yooyu voilà donc am na am na am na am na euh, mbir moo xamante ni def nañu ko ci ñi nga xamante ni ñoo fi nekk papa ñu ngi lay nuyu euh, Diagne ñu am mbégte lool euh, tey ni nga bàyyee yëpp xam naa ni jot amul benn yoon ndax ndar rek la soxal nga ñëw àndandoo ak ñun waaye léegi mu def daanaka weer nga ñuy jàppale ci liggéey bi ba groupe Futur Média jëlee décision def GFM en fait muy ñoom Daouda Diouf muy ñoom Marie euh, muy ñoom Diop euh, muy ñoom POD ba ci équipe bu télévision Futur Média noppaluwuloo benn yoon et que gis nañu sax euh, bëri na ay cat yoo xamante ni dugg na ci waaye teewul même ñun bu ñu demee ba gëm ni ay ndok mënul ñàkk c'est grâce ak ak yow ñu ngi la koy gën deme defe naa dañ lay bàyyi nga nuyoo ak sénégalais yi nga xamante ni tey am nañu mbégte xëy jàkkaarloo ak yow ci yeewu lem bi ci TFM Pape Cheikh maa ngi leen di fay maa ngi leen aussi réew mi yëpp. ça va être très difficile. franchement. ça fait cinquante deux ans je fais micro. cinquante deux ans. pour la première fois. je peux ndeysaan dañuy xool euh, élément bi kon uh-huh. et puis muy loo xamante ni def nañ ko ci suñu Pape euh, Golbert finalement tout le plateau pleure après je vais essayer de voilà euh, comme tonton Golbert ni mu ko waxee ça fait 52 ans que muy liggéey ci micro rajo lañ ko njëkkoon xamee mu nekk ak ay euh, collegam yoo xam ne daf doon liggéeyandoo ak ñoom ci biir rajo bi finalement ñu dem ba créer benn troupe théâtrale tous les ni ñuy def théâtre euh, radiophonique à partir de 1981 nag lañ commencé di leen gis à l'écran ak groupe Bara Yego ci théâtre bi nga xam ne mi ngi tuddoon Bara Yego xam naa ni am na plusieurs tomes ñun ñëpp seetaan nañ ko mu bercé suñu enfance am na yeneen théâtre yu bëri yoo xam ne euh, ñoom defoon nañ ko mu yu mel ni Reug Reug Bodian Coumba Ndar Samba Ndar mu defandoo ko woon ak ñoom Mame Seye Alaaji Mansour bi nga xam ne nekkatuñu fi euh, Marie Madeleine euh, ki ko doon bind nekkoon Daouda Guissé toujours donc nit yi di leen xaar di xool ba xam dinañ ñëwaat sur scène ñëpp koy ñaan incha allah on espère que dina ñëw dégg nañ sax am na loo xam ne mi ngi en préparation pour juste vous dire que Alioune Badara Diagne tonton Alioune Badara Diagne suñu papa ñu koy gën a woowee Golbert talent woom nekkatul loo xamante ne nit yi dañ naan est-ce que am na wala amul parce que ku ci nekk euh, jot nga ci teg s bët comme moom nag Saint-Louis la dëkk tout le temps day liggéey. liggéey ci euh, jëmale kanam dëkku maam Kumba Bang bi ba ci dafa dem ba créer benn mayo boo xamante ne boo nekkee doomu ndax dëgg bëgg Ndar di liggéey pour ndax dem kanam dafa la koy jox mayo bi bébé lay commencé ñu teg ci numéro muy bëgg sa bopp euh, loolu la bébé bi di signifier numéro 1 bi boppam la ko jox dina jox yeneen doomu ndax yi nga xam ne mérité nañ ko yeneen numéro yi mu nekk tey suñu people bi nga xam ne moom la ñu jël ndar même si ndar am na ñeneen mais ñun dafa nekk koo xam ne ci ñi ñu gën a marqué la bokk depuis bi ñu nekkee xale ba léegi comme ni ma ko waxee tout à boo ñëwee Saint-Louis da ngay bëgg a découvrir kan mooy Euh, Alioune Badara Diagne Golbert tey nag dañu bàyyi ay proches ñu waxal ko def témoignage te dañ ko topp pendant toute une journée ñu seetaan ko ñëwaat. Sénégal maa fi njëkk def reportage en wolof 1973 kenn arbitre préfédéral ba admin maa créé nawetaan bi nga siiwee <laughs> Golbert Diagne bi man ci ñi ma formé la après maam Fall bi nga xam ni bala ko dëkk Golbert Diagne moo ma formé ba tey jii ma maa ngi fii depuis donc je suis dans le mouvement associatif ba léegi ba nag c'est pas gratuit. Je me plais aujourd'hui d'être au milieu d'un ramassis de Saint-Louisien. Et je peux en citer au moins quelques bons exemples qui se trouve être un entraîneur national. jataay bi yaakaar naa ni suñu ay mag ñoo ko sumboon mais tey jii ñun ñoo koy yorete xam naa ni ëllëg it suñu ay rakk yooyu ñoo koy continuer. mooy dimanche matin bi nga xam dañ koy organiser stade kooku tey ko du kenn loolu Alaaji Golbert Diagne. vous voyez tous ces grands joueurs qui ont fait les beaux du football saint-louisien. mais je vais m'arrêter certainement sur un homme. je voudrais dire un monument. parce que Saint-Louis en tant que ville artiste. nous a produit une œuvre impérissable à la dimension naturellement humaine qui se trouve être Goldbergien. Mais puisqu'il est impérissable, je voudrais voir cette fois-ci l'autre aspect. Il est au contraire un document. Un document, Un grand livre que je vais devoir ouvrir pour vous lire à cœur ouvert à la première page un bon père moom dafa di koo xamee ni kii ci suñu biir doo dootoo xamati ndax xale la ndax mag la euh, petit par la taille grand par l'esprit mais toujours est-il que nit ñi dem nañ ko utiliser ñi ko ñaat rek ñoo topp ci ko fooyee di ko def di ko pamte pamte tey jii moom defe naa ni il prolonge par exemple sa vieillesse ci biir jeunesse bi biir jeunesse bi di ñoo xam ni aussi ñu nit gërëm nañ ko. Golbert Diagne nag buñ ko présenté ci ndar Golbert Diagne ci culture Golbert Diagne ci sport Golbert Diagne un père de famille tout court donc damay wax ni tey bis bi am pas bis bu rëy la ci les scopistes saint-louisiens ñu ci ànd aussi ak TFM di leen encouragent en tout cas di wax ni initiative yu mel nii. dafa nekk loo yoo xam ni lu ñuy saluer la. mais pour terminer parce que je vais avec commencer avec lui pour terminer avec une figure emblématique qui se trouve être Golbe Diagne que Dieu nous regarde à nos côtés hein, longtemps longtemps et nous vous remercions. Euh, kanam la yore di ñu gidde ci yoon woo xamee ni bii yoon wu jub la ñoo ngi ko ciy ñaanal yàlla mi nga xam ni mooy bàyyi nag mag ci kanam parce que mag wéttal la. mag ñaan la mag doy na ñaan doy na lu ne tàllal nañ ko encore loxo di ko ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko suñu kanam si kaw ndar ba nga xamee ne bii fu ñu ànd bu baax a baax a baax a baax moom daal ndar euh, rek mu neex ak mu naqari moom ndar rek donc di ah, rek ses proches parlent. voilà parce que xam naa ni euh, ñun rien que ñetti fan yi ñu passé ak moom. gis nañu teraange bi mu ñu defaral donc euh, je pense que koo xam ne depuis bi mu commencé euh, créer rajo mi ngi def émission bu ñu tuddee Ndar Raññi di wane li nga xam ne moo doxul ci société bi te am na ay anecdote yu ma jot a dégg Pape Cheikh comme quoi bu fekkente ne dañu jàpp sàcc Ndar mhm. dañ koy jël yóbbu ko këram bu xëyee utal ko liggéey. ba pare bu demee tout le temps day jug di dem di xool ndax kooku mi ngi xëy di liggéey si ba léegi. donc je pense que loolu rek mun na. Euh, montrer bëgg bi mu bëgg Ndar prouver ko vraiment vraiment ak euh, teranga bi nga xam ne moom lay defal nit ñi tout le temps donc ñu koy remercier bu baax exemple euh, papa ñu ñu ñu bàyyi la nga forcer rek nuyoo. waaw waaw maa ngi nuyu ñëpp. waaw maa ngi leen di fay di présenter mes excuses. c'est pas grave. c'est c'est normal ñun ñooy jégalu ah. waaw. mais c'est c'est c'est bien. Mhm. Euh, maa ngi leen di gërëm je remercie tout le groupe GFM. Mhm. Mhm. je remercie d'abord Saint-Louis. les imams. les femmes. le maire. je vous apporte aussi le salut du gouverneur. Alioune Aïdara Niang. Mm-hmm. Aïdara Niang ku baax moom tam. le salut du du préfet. Mm-hmm. de l'ensemble des autorités. Mm-hmm. gouverneur bu ñëwee boppam suba naka waxal boppam. ma gërëm groupe bi yëpp ku nekk ci fi ngay liggéey. quand je vous vois. damay am un soufle de renouveau. qui intérieurement c'est une voix que je ne peux pas décrire qui comme qui me dit. Pagol, tu as 18 ans. Continue et fonce. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Et ça, par votre professionnalisme, Merci. votre sérieux, votre envie de réussir, mmh. votre vouloir de gagner mmh. et d'imposer une nouvelle formule communicationnelle mmh. qui pourra permettre aux uns et aux autres de comprendre que pour bien gouverner, il faut avoir des partenaires de presse, mais de véritables partenaires de presse qui s'incrustent dans la déontologie, l'éthique, la franchise, l'honnêteté, la générosité et la disponibilité pour son peuple. maa ngi leen di gërëm di sant Youssou Ndour. moom mi liggéey lii bi mu commencé woy bay am ay prix sur le plan international. di am vision defar rajo am vision defar télévision ci la ko ñu bare jege. dëgg la. bi moo nekk xale di ñëw fii stade Joseph Gaye Pape ba Diop mbaa gaañu le premier chef d'orchestre du Star Jazz de Saint-Louis qui jouait au dancing le cocotier les grands musiciens du Sénégal ni dañu ñëw ba Ndar defal ko fi hommage stade Joseph Gaye quand Youssou Ndour est venu pour dire qu'il va monter sur la scène pour une raison que je pas décrypter les gens ont xale bu tuuti bii du yéeg ci kaw scène bi ma ñëw ci ki ka wax ma ni que dana yéeg ci scène bi baba xale laa dama wex xat <laughs> ma du yéeg ci kaw scène bi ma ne que dana yéeg ci kaw scène bi hmm. mu insister ma dóor ko direct waaw waaw alkaati yi ñëw ñu atte nu la ma wax alkaati yi ni bàyyi leen ko mu def li mu bëgg bi Youssou yéegoo ci kaw seen bi yooxu jooy nee na Pape Samba Diop seen waa kër nii ci loolu di ma dégg mhm. ci la biddewu xale bi fenq wallaay moo taxit bersi bi passé su ko yàlla omatee ba mu ànd ak def li yëpp maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may wér amin amin amin mais aussi man ça ne m'inquiète te surprendre ma mhm. parce que doom boo fonkee sa maam bi jur sa ndey déggal sa ndey toog ci sa penku baay am jom la biir am fulla doo jëw añaanoo soxoroo bëgg sa réew bëgg sa bopp foo jëm yàlla bul buntu bi ñu jógee dakaar di ñëw Ndar Youssou daa bëggoon ñëw faf yàlla woo yàlla ñu woolu ko dëkk bu ñu naan Australie bu ñëwoon li mu bëggoon wax daf koo wax jox ñu ko pour ñu indil la ko dañu ko dégg ndar am na ba tey ji ñu xam ne dañu foog ne man ndar laa juddoo fa laa màggee fa yaroo te fa laay ñibbi ci àdduna bi loolu nag neex ma lool ndax loolu mu nekk sama xol moo tax euh, suma histoire ak ndar yàgg mu jaare ci ay nit jaare ci ay événement jaare ci histoire u ndar ñu way ko taxaw fa Euh, te yàlla def bi may door euh, mu amoon kilifa gu mag ci wàllu musique ñu tuddee ko Pape Samba Diop yàlla jël ko mu nekkoon choc ci wàllu milieu artistique bi euh, ma àndoon nag sama nijaay sama pap Charles Diop hmm? yàlla na yàlla yërëm ko te xare ko àjjana ñu toog ñu koy defal hommage ci laa waye woon way boobu Papa Samba Diop boobu xale bu ndaw la euh, ci stade euh, Joseph Kay looloo tax nag toujours nit ñi dëkkal ma ndar euh, ne foofu laa dëkk te man it ma na mu neex ma lool ndar nag bu fa lu mel nii xewee ah événement bu mel nii xewee teewuma fa mën nañ koo comprendre ndax man maa nga ndar xam nga lan moo tax ma nekk ndar Golbert Diagne suma mag suma xarit fu mu ne mel na ni maa fa de kon nag maa ngi nuyu waa ndar yépp mel nii ni maa ngi foofu Futurs nag li mu def daf ko war a def ndax Futurs Médias télé la rajo la journal la dafa bëgg di siiwal li nga xam ni que mooy luy xew te ndar nag dafa xew ndar dafa xew démb xew tey te day xew suba Sénégal yi ku leen kii ba ma moytu almaan yi ba toog faal yow daal teel nga buur un grand Saint-Louisien Almaami Mataw Fall un très grand Saint-Louisien nit koo xamee ni que euh, Saint-Louis la dëkk waaye dimension national la amoon yàlla na ko yàlla yërëm euh, mu nekkoon koo xamee ni dafa mës bëgg rayonnement Ndar loolu rek la daan waxtaan ak man donc Ndar dafa am ay figures yoo xam ne ko yu rëy yu mag yoo xam ne ñoo ŋànk réew mi ba pare booleeg ñoo xam ni que dañuy def fii loo xam ni dootul de kon nag Ndar sama Ndar la maa ngi nuyu di leen euh, ñaanal euh, waa GFM euh, seen toogaay foofu nekk toogaay boo xam ne kenn dootu ko fàtte. loolu nag message yu Youssou la tàccul leen moo ko bu baax yéen ndax moom doomu ndar la te mooy li mu wax léegi li mu wax noonu bu fi toogoon loolu lay wax moo tax mu yóbbante ñu ko ci yow. te da nga ñu nittali histoire ba amoon ca Papa Samba Diop fi mu jaar ak almaami te boo seetloo Youssou li mu way ñetti way yi mu way jagleel ko ay doomi ndar. moo dàq ci ay woyam loolu sañ naa koo wax. Papa Samba Diop Mba. waaw almaami ma taw Fall. Golbert Ndar Géej. Mhm. Golbert. waaw waaw. Papa Samba Diop Mba. Mhm. il a été le premier musicien sénégalais. Mhm. à représenter notre pays dans un festival de musique internationale c'était le festival d'Helsinki en yàgg na loolu. almaami ma taw grande figure saint-louisienne yàlla kay li may ko wàccu waay ajana moo tax ñu woy ko ci fanaal dem na ba mujj mu ni ma Alaaji Golbert ma ne ko naam mu ni ma su ma toogee vendredi soir ju liggéey te aw ma 3 millions wala 4 millions damay jël sama oto def contact bàyyi oto bi mu dawal boppam ba dakaar parce que rus naa dugg ndar taw ma xaalis. ndeysaan. mu des Golbert. Hmm? man maay taalibe bi. almaami fii la gaare otoom ñëw vendredi samedi dimanche mu toog ak buubu Diop parce que wax boo ko wax da koy génne ak seede ni ma je rentre sur Dakar mais je vais revenir très vite ma ne ko man ñëw Dakar mu ni ma tiens bien le flambeau que je vais te mu départ dem ma jóge fi 4 heures du matin dem bi ma demee bureau am huit heures et di ko seet pour le rendez-vous fekk denn ci biir bureau bi nu ma koy nëbb par crise cardiaque lu mu am mbokk nag ak dëkk bi li may wax waa Ndar a ngi koy dégg kenn du ko miim mais c'est le comportement de Youssou Ndour doomu ndeyam a ngi ni toog professeur la di gagner son salaire correctement grand cadre de l'enseignement au lycée Omar Foutiyou Tall buy ñëw bu dëkkee ci hôtel bi muy wàcc Mara Dieng mooy taxaw ci bunt bi. walaay Dieng may sax. bu nu annoncé ni Youssou Ndour dafay ñëw ndar sama kër day mel na ngénte fa amul la dëj. comme hier ni ma ñëwee jox la benn lettre hier matin jox naa la benn lettre. noonu la ma nit ñi di defee boîte postale pour Youssou Ndour. alaaji joxal ma Youssou joxal ma ah, Youssou joxal ma Youssou mel naa fi ni Youssou rek. mi ngi nii boobu ñëw ñëw. waaw jox naa la benn démb. Ah. <laughs> su dajee lettres yi lire ko. Eh. ndeysaan dafaa jékki-jékki choisir benn moment rek. ni ma àllaaji kaay bu ma ñëwee rek mu dugg si bu ma duggee mu ni ma daal tëjal bunt bi ma tëj bunt bi mu woo financier am ni ma ni ko jox ko yëpp. waaw ah. képp ku ma bind leen teg ko sama loxo. waaw ah. donc may dégg. Ah, ma yor ku nekk la nga ñaanoon. fekk naa la sa kër. wala sa mbedd. wala fa ngay liggéeyee. ne la nga ñaanu Youssou Youssou teg na ko sa loxo. ndeysaan. il faut être un grand homme pour faire ça. moo tax Youssou lu muy li ko naqari nag boob ba tey léegi mu def ay at xamul ki tàngal satala gi waaye bu ko xamoon. Euh, ki tàngal satala gi nag ki tàngal satala gi. bëgguma mu xam ko. waay waay wax leen ma ku tàngal. ndax moom lu mu xam. lu ma ci ku tàngal satala ko siiwal. waaw ma ne ku tàngal satala ku tàngal satala gi. Youssou nee ku tàngal satala bu ñu xamoon ku tàngal satala Euh, papa papam c'était le plus grand homme de le meilleur stoppeur du Sénégal en football papam moo doon l'homme au mouchoir blanc uh-huh. dans la grande équipe de l'espoir de Saint-Louis uh-huh. mi ngi dëkk fii ci taatu hôpital. Euh, mi ngi liggéey yàlla defal na ma bu ma tourné affaire boobu. Uh-huh. un an après la ko góor gis bëgg ko takk ka. Ah, ah. kon jigéen di ko de. ma ni que sama desu dund. kii ngay séyal. <laughs> ndeysaan su sa su mosee ñëw ci man benn yoon kalaame la ma xam ne wàcc nga yoon. ndeysaan yaa ngi fàttaliku pièce bi kañ la woon. yàgg na ba fii. ma toog. Uh-huh. fu ma jëkkër ji romb ni ma may ngeen ma jabar génn junne wala ñaari junne ni ma sa ndékki pour suba. ndeysaan jërëjëf xam naa ne danga nga bëgg yuusu te amul jot dama lay euh, euh, euh, bëgg a berse rek ci bëccëg gi nii. Ah. ak quelque woyam. ñëwal ayta nañ ma tegal woy yi ñu woyal la ko na ayta. ngi booba léegi léegi Papa Samb la ñuy ubbee ñu de tàccu leen waay muy les ca waar wa bu tey metti démb neexoon jàmbaar muy les ca waar wa yow daal teel nga buur teral maa doola yow teral nga say maas Sénégal di kuleen kii ba ñu wey ko almaan yi ma doon faala waaw na ñépp takku nañu ko waaye Sénégal yëpp amuñu sa fay papa ñu ngi lay gërëm tey tey ñaanaat élagement bay gar mi Cheikh tey def naa ni lii ku mu dawul sa yaram du daw wax na dëgg nag ci diggante ñi nga xam ne nii moom mooy ay xaritam di ay soppeem Youssou Ndour daf ci jouer un rôle bu am solo Youssou Ndour nag gàcce nga laamaa moom Baye Cheikh gor soo xam ne si saa yoo jógee yaa ngi fay ñoo xam ne xamoo leen ñi ngaa fay xamante wuñu bi nu ñëwee fii daje fi ay correspondant yoo xam ne yi xamante wuñu ak ñoom wallaahi loolu moo lay wan ne dëgg-dëgg état la ci mbaaxam ci yiwam lu ma am rek ci réew mi la ko waaye dëgg nag wurus ñang maamam ma fuuta dem samay xaar ak sàmbilu xëy faar ñi ngi fii ci ndar torodo bi kon moom bu nee doomu ndar la jaadu na mhm. bu bëggee Golbert nag wàcc na xam nga moom lu bëgg jàmbaar te Golbert day jàmbaar te bëgg na boppam muy élage jërëjëf papa kontaan nañu ndeysaan ça veut dire que man mhm. leçon yéen samay doom ngeen mhm. mais jàngalaat ngeen ma àddina Ça veut dire que suba su nekk daan naa góorgóorlu. incha allah mais à partir de demain lu ma doon def naa ko multiplier par dix. man maa jur Malal Junior Diagne sama papa ko tuddee. grand-père baay bu beeraam mon père c'est un grand monsieur qui a tout fait pour que je réussisse et j'ai tout fait pour que Mbaye Diagne réussisse wallaahi mais Youssou Ndour même s'il est père de Birane Ndour c'est compliqué sen Alors, moi je gère une petite radio, je forme des jeunes, j'ai pas de moyens pour les maintenir, je les lâche pour les autres. Le directeur de publication du journal L'Observateur s'appelle Alioune Badara ah Après son bac, sa mère qui avait partagé avec l'association des dragueurs dont j'étais le président en 1960 est venue me dire voilà ton fils, fais-en un J'ai fait ce que j'ai pu. Il est votre directeur de publication ah ah Madame, je lui ai dit, sors de la maison. Va te casser la gueule. je m'excuse du terme. yombal na ma lool ma woo Youssou Ndour ni ka jëlal sama doom di ci teg baat mosuma woo Youssou Ndour pour ma ne Kambel Dieng. Oh, il est de Gendar. Gendar dëgg la walaay il est venu me dire dama bëgg jàng rajo. j'en ai fait un grand reporter. wallaahi. GFM. dans les grands événements du monde. quand toutes les radios régionales trouvent des inquiétudes, de par mes ménages de journalistes avisés, je prends l'ordinateur, je dis cliquez RFM ou TFM, balancez-moi ça sur l'antenne et je dessors la région nord. Tout ce que vous faites. ça passe directement et Saint-Louis n'est pas déshérité. Wallahi, wallahi, mm. wallahi, Mais c'est parce que le groupe bosse un pesant d'or. Mm. Et c'est parce que le travail est sérieux. Mm. Pape Cheikh, vous m'avez eu. Jërëjëf <laughs> Vous, n'êtes pas sérieux. <laughs> on a préparé ça nous tous. collègues yeeg xale yi ñoom ñëpp ñoo ci ñoo ci ñoo ci taxaw ndax ñun ñoo amul sa en fait. ñun amuñu sa fay. dëgg la de. amuñu sa fay. maa ngi leen di nag ak yàlla. jërëjëf papa jërëjëf papa kontaan nañu. fu ngeen jublu yàlla nañu fa yiwu yàlla jiitu. amiin Diagne amiin Diagne amiin Diagne. je vais terminer pour mettre une toute petite note d'humour. Mhm. parce que émotion bi dafa jóg. waaw. na nga wax Youssou Ndour mu fay droit d'auteur yi ma ameel. <laughs> yeewu leen. Uh-huh. maa ko moom. wallaahi. émission yeewu lan la tudd ci rajo bi. maa ko créé en 1996. sàcc na sama yëf mënatuma ci dara. Bouba Ndour mooy producteur yi. Almaami Fall bi mu woy léegi. ndeysaan. ba ñu demee këram man damay togg ceebu jën almaami damay togg ceebu jën pour Youssou man ko doo ko togg Youssou ni ci Golbert laay lekke. je dis à almaami soo bëggee Youssou lekk sa ceebu jën. da ngay togg mais bala ngay bala muy lekk da nga may fay 500000. wallaahi. almaam yi génne 500000 jox ma. ñu añee këram. super étoile ñëpp di ci naan ceeb bi dafa neex. man leen taxaw leen ñu taxaw man leen kii du ceebu ndar. <laughs> almaam yi nga ca njëgal yàlla mu ne woon tax du ceebu ndar. man nga ceeb bi amul xooñu ni loo waaw waaw. <laughs> muy ñaar. ñetteel bi buuba <laughs> tu n'es pas yow ak Khadija parce man li may ñaan yàlla. ndeysaan mooy mu may ma ay milliards. Mhm. man su ma amee ay milliards. danaa ko ci dëkk bi ba xale tukki yi ñëpp am liggéey. ndeysaan allah mais en plus de ça dama bëgg bu ngeen dee passé ci guy gi nekk ci buntu Paal. ba ci dernier village bi nekk ci département Bakel moo di Bondji. tout ce qui touche Youssou Ndour je veux soit sous responsabilité et sans aucun franc dépassé. yàlla am na ko mën na ko te dana ma ko jox moo jox leen jërëjëf Diagne jërëjëf Diagne kontaan nañu tàccu leen ñu suñu papa El Hadj Alioune Badara Diagne Golbert El Hadj Oumar Mbaye Garmi laataa ñu dem ci Alfek uh, nu mu jeexalee togg bi ak uh, Sofia mm. uh, defe naa itam am na yeneen ni kàngam yoo xamante ni am na lu ñu fi def mënuñoo lim ñëpp mm. defe naa waaye am na ko ko ko ko koo xam ni. Mm. lu ne def na ko ci ndar. Mm. Euh, dañu ko def nag ci teewaayu xale boo xamante ni actuellement. ambassadeur u ndar la muy ñagas. Mm. <laughs> ambassadeur ndar la. naa loolu for na. waaw ñagas euh, ñu ngi koy nuyu lu bëree bari di wax ne Pape Cheikh tey ndar c'est émouvant. Mm-hmm. Papa Golbert nag moom moo ko waral. waaye maa ngi lay wax ne kii ma lay indil day mag mu baax boo xam ne bi bu xeefulu ndar la mhm. di abi bamba tàññi ni nga xam ne ci commerçant yu mag yi ci la bokkoon waaye bi mu duggee cap dafa fexe ba gën mhm. waaye bi mu génnee tam lu mu am da koo delloo si ndar mhm. tabax na ay jumaa ci jigéen te booba innovation boobu amul rawatina tamit bi mu jaxasoo ak tubaab bi tamit lépp loo xam ne li kilifa diine soxla woon nañu ko dana leen ko daan defal ba mu mët a rawatina maam Abdoul Aziz. Hmm, da baax su ko masaan recevoir danaan ko Abiba ba tàññi ne. Mhm. balaa maa ñaan man da baax yow il faut nga ñaan. ndax sa ndeyoor yi ngay yi nga xam ne nii yemalewoo ko ci benn buntu kër kon dañuy tàbbi rek ci élément boobu nu bokk ko seetaan su bokkoon nag su fa nag ñu ñëw ci ñagas. ay na biir. ajaratu Abiba ba eh, tàññi ne naa ku yàgg ndar rek xam nga lim fi def. te référence la surtout ci jigéenu ndar yi. fii lañ ko décoré woon fii. ci bureau gouverneur bi. ci bureau gouverneur mu ànd ak ki nga xam ne kii mooy Malick Souran. Malick Souran mu Bamba Souran nga xam ne nii bàyyi moo jëli plan jumaa ji. waaw kenn du mën a tudd ndar ba génn ndar boo tuddul boo tuddul Souran. Ah. boo tuddul dëgg-dëgg dëgg-dëgg tuddoo Bamba. France tuddoo ma Souran seen baay. ak Youssou wóorul. ñoo bokk. fukki kër ak ñaar moom la jaay. Hmm. fekk dem tugal jëli plan jumaa ji lu tax lu taxoon mu tayle mu tayle mu tayle alalam ja mais daa bëggoon rek dëgg-dëgg jumaa yi xaadim rasul taxaw waaw waaw Modou dëgg-dëgg ubbi jumaa ji ba dëgg-dëgg sëñ Fallou inauguré ko ak tubaarkaar rakkam yëpp jaar ci ba ci maam Saliou ba ki nga xam ne mooy sëñ Abdou Khadir sama sëriñ waaye maa ngi lay wax dara de Abi Baba Tàññi nii mi nga xam ne nii dëgg-dëgg mooy càmmañ ci tur bi Abi Baba mooy Abi Baba Tàññi nga xam ne moom la ñu dénk dëgg-dëgg góor gu baax gu ñaan Cheikh Ndiaye tàkko mu jër nday tàkko càmmiñal ko ak fuuna kenn ci doomu ndar yi kenn du ko tudd dëgg dëgg dëgg te te du sakal dem ci jëfam ak lu baaxam moo tax tey ma indi ko ndax mu ànd nag ak nag huitième 8 mars bi nga xamee nag ci la ñu sargal jigéen ñi. wallaahi waaw lu rek laa ñu indi bàyyi seex. mënuñu woon ñëw nag ba Ndar te duñu sargal kooku ajata ab Baba Tandigne Tandigne ak ni ñu ko sargalee woon fii ci bureau gouverneur xam nga loolu dafay euh, firnde rek nii ñu ngi jëm ci euh, bis bi ñu jagleel. Euh, jigéen ñi di 8 mars. El Hadj Oumar Mbaye Garmi nag taxawaayam li tax mu am solo mooy. Euh, ba mm. ci xale yu ndaw yi dañuy gëstu. ba ci xale yu ndaw yi bu ñu leen wanee ay reportage am dañuy xam ni réew mi yàgg na ak ay jàmbaaram. wallaahi defe naa El Hadj Sénégal amul sa fay. de kontaan naa Baye Cheikh. jërëjëf di la rek di kontaan. Mm. ak di wax ne daal dëgg-dëgg ni nga nu encadré tamit foor na lool. Mm-hmm. yàlla na yàlla sàmm la. amiin amiin ndax dëgg-dëgg. Euh, boo jiitee mbir. Mm-hmm. soo yaatuwul déedéet te yow vraiment tu dëgg-dëgg tu as un joli te waroo benn yoon. <laughs> déedéet ok. ñagas dama dugal studio daa benn woy bu ma war a génne. <laughs> delloo rek jaajëf doomu ndax kontaan nañu ci euh, tey sa teewaay. waaw euh, c'est vrai que boobu ba tey yaa ngi ñuy gunge euh, pour yeewu leen bi mën a taxaw parce que. nous sommes venus il y a il faut que ma waxaat ko nag ah, mm. ay cat yu bëri. mais bon lu mënta ñàkk faw mu am. defe naa ndar. yow bokk nga ci ay ambassadeur am. waaw waaw waaw bokk naa si bon bokk naa si ñi si si nga xamante ni ndar moo leen soxal. Mm-hmm. mais par exemple ay sama papa Golbert. luñ fi nekk may nangu tey du ma nangu dara damay këj rek en tout cas sama télé laa àndal hmm. xam nga ànd ak ñoom ñu ñëw teg affaire bi et initiative bu baax la parce que boo leen ko décentraliser booy yëpp gis nga leen ñu ñuy yóoxoo ay bijoux ay Pape Cheikh parce que waxuma la gis bi nii rek si écran gis réel bi nii nga xamante ni bu rombee di nga mën jàpp mbubb hmm. c'est très important et puis ñun ñëpp ay doomu ndar la c'est vrai que soo ba tey maa ngi leen di bàyyi ngeen di wax waaye man tamit kenn nekk doomu yow doomu Pape mbay Diallo nga hmm. bu maire en ret nga ak Pape Cheikh Diallo defe naa yow Pape Cheikh Diallo lañ la tuddee voilà te bon euh, sa sa rakku papa moo doon denc sama mère nekk sama beau donc bon yow boo gars foog ñu xam sama mbokk kenn ku ma gën a nekk Saint-Louis voilà voilà kenn gënuma nekk man man mii maay ndar ndar man mii maay Saint-Louisien kuy Saint-Louisien kan mooy ndar ndar voilà man mii maay Saint-Louisien et tu sais. kuris ndar ndar est-ce que xam nga doomu ndar. waaw yow tam ndar ndar nga may ma man tamit ma wax sama ndar sama ndarte. san ba tey yaa ngi wax sa ndarte ak seen ndarte bàyyi leen ma wax sama ndarte. Ah, waxal sa bopp ah, waxal sa bopp kii waa Ngaye Mexe la moom. xam nga. xam nga et puis doomu ndar même <laughs> dañuy neex a ràññee ci yeneen dëkk. waaw gis nga boo demee ci dëkk yu mag yi ci bërëbu liggéeyukaay yi doomu ndar bu fa nekk dañ leen di ràññee. ci ci silwise ci am classe. ci mën a sañse ci jël di jël premier fu ñu mën ci toll. donc loolu doomu ndar ko moom. moo tax fu ñu mën ci nekk ñooy jël premier. waaw yeewu leen fajar la waaye sama émission bi mooy premier. premier parce que ay doomi ndar lañu. wallaahi wax camarade vive Saly oh. <laughs> Vive Saint-Louis bu ñuy waxtaan danaan ma man daal Bijou Ndiaye Ndar laa bëgg a ñibbi mais ñibbisi bi ñibbisi bi li ma jaaxal musuma am daal maam bu jugee ndar musuñu am dara mais moom daal da a neex maman da a neex ndax ndox beeg architecture bi mel donc am naa fi waa alaay ex nee na léegi waa ndar la ah, ndarte ko ne wax ndarteem kon mu jeex man sama ndarte la sama papa ah. tam si sekk lu mu jur. Uh-huh. ndar la jàngee sama ba doomu jigéen sama tante Anta la ko tuddee. Uh-huh. Anta mi nekk fii ci Ndar. donc sama pap Moussa Pa Habib Ba ñëpp a ngi ci Ndar man may Ndar Ndar. 100 pour 100 may Ndar Ndar. ñoom ah. ñoom ñoom ñoom Fatima Ba ñoom Kia Aydara Maymuna léegi du ngeen wax seen Ndar te yéen waa Ndar ngeen. xam nga man lu ma si ah, neex waa Ndar fii ku fi baax waa Ndar nga. man li ma ci neex mooy yéen ñëpp nangu ngeen. li ma ci neex mooy yéen ñëpp nangu ngeen. Uh-huh. naa la xamal daal Ndar. Uh-huh. c'est la capitale du bon goût. Ouais. de l'élégance et de l'éloquence. Alfie waa Ndar la aussi euh, famille Adja sama côté yaay famille Bes Daari Ba sama papa Malal. Ah. sama côté papa. waa gis nga di nuyu ñëpp samay bàjjan. samay tante donc sama juróom-ñaari maam yëpp. ndar lañ de yokk naa ci ñaar muy ñeent. <laughs> defante rek waa Ndar la <laughs> euh, Aziz Soumaré le technicien de choc waa Ndar la euh, je sais que Marie euh, madame Dieng moom tamit Ndar la Ndar la je sais aussi que Marie lan la ni <laughs> patron bi mel ni Foor Ñasimbe Daouda Diouf c'est un Saint-Louisien ah <laughs> je sais que bëri na bu ñu limee dañuy euh, dañuy dañuy juum. mais mais alors euh, bëgg naa tam wax waa Ndar yi ni mhm. euh, dañuy am cérémonie officielle. Mhm. fii ci place Faidherbe ñëw léegi ci programme bi. voilà ba mu neex. <laughs> bii du sport bi dama jàpp maa koy joxe bàyyi ma jox xam nga génne génneegu ma sa génneegu ma sa dënk yeeg ànd cuuraay yi présenté à face ah. <laughs> maa ngi ñëw ci loolu léegi. waaw waaw qu'est-ce que tu as comme projet euh, bon instant yi nii nii euh, daaw def nañu benn projet euh, Pape Golbert moom moo doon suñu parrain mu tudd festival bu tudd Doomi Ndar. Mhm. Doomi comme les deux notes de musique. Doomi Ndar Ndar de. ND apostrophe aar ça veut dire ndaaw aar fii moom fii la aar buujoo quoi uh-huh. donc ñu ngi waaj a dem si deuxième édition bi et dëkk bi daa xawul neex noonu mais bu neexee maa ngi am yaakaar am na ay talent yu bëri yi nga xamante ni ma jàppale leen aussi pour ñu xam leen def benn compilation toujours dans le cadre de doomi Ndar mhm. waaw lépp lu ñu mën def bu ñu mënee bale bu ñu mënee waas bu ñu mënee raxas booru dex gi on a beaucoup de projet uh-huh. mais dañuy xaarandi rek ak ñi ñuy liggéeyandool pour ñu gën ko def et je salue de passage Mbaye Ndiaye Tilala bi nga xamante ni c'est un grand ah, artiste ba bëgg ngeen tàcc ko vraiment sama gaañ la sama doomu sama waay la quoi mm-hmm, mm-hmm. voilà voilà donc ah. mm-hmm. film bi voilà voilà film bi voilà film bi donc bon instant yi maa ngi waaj ak uh-huh. euh, waa TFM euh, euh, plus précisément ak njaga Ndour ak Mbissane ñu ngi waajal benn série benn téléfilm buy tudd am dara uh-huh. parce que dëkk bi metti léegi tous les pour am dara voilà bu leen ma toroxal man rek góor la fii si daara ji dëbb nag moo gën ngay gaañaate ay nit lépp pour am dara rek am dara rek nii rek mënoo ko nii cappal may capp cappal may capp ah ah allez bébé bébé mère seen saatu bi boo ngeen xamante ni demee laay commencé waat xëy aujourd'hui c'est fini wàcc naa c'est terminé buñ ci wax lenn nag. bàyyi ma wax dara léegi dam rek ma këj rek. après daal nañ ko xaar daal. mais waaw. dañuy ànd ba ni ñuy màggee ñagas laa lay woowee. <laughs> boo ma dugaloon di ma suul ba fii ah. ñagas laa lay woowee léegi grand su ma demee ba mënatuma la woowee ñagas faxas faxas wala raxas kenn kenn xamul mais ñun ñëpp waa Feere Jazz xam ngeen ni ñuy woowee ñagas bu ñu mënul wax turam down down léegi ku romb ñagas wala bu fekkee da julli mu romb la comme doo mën a wax boo nee ni bu la romb rek nag <laughs> ñagas la rosa <laughs> non non non def ma bii pour ma ñool quoi non boobu boo koy def il faut nga il faut nga am foo yëg quoi def ni <laughs> waaw <laughs> merci Niagass allez euh, dañuy dem ci Alfi mu wax ñu ni mu def jën bi en même temps on va faire appel balaa ñuy dem ci Habib Ka suñu xarit la Rosa c'est un très bon coin j'en ai parlé tout à l'heure on va on va faire appel à notre ami euh, comme ça mu ñëw Abba Abba bu la Rosa même sama papa Golbert foofu lay ndekkee muy la Rosa ah foofu moom il faut il faut ku ñëwati ndar nga dem loo fa bëgg lekk fi nga ko fa fekk seeni ginaar baax te man man daal la ma fa fekk ci ay lekk daf ma jaaxal dama bëggoon bàyyi alfi sax yóbbaale wala rosa ok gars yi ñu ngi leen nuyu di ah. tënk rek di leen ne vraiment kontaan na lu si accueillir leen déjà si san louis di saluer seen initiative bi mm-hmm. di leen ne aussi que ne comme li ma leen waxoon démb rek mm-hmm. ñun on est très fiers de vous accueillir mm-hmm. parce que tey tey tey yéen ñëpp ay modèle ngeen Rosa nag euh, day feddali kóllëreem si ndandar yi Rosa mooy feddal kóllëreem si ndanda yi mm-hmm. ndax euh, ñun noo def choix wu servir waa Ndar mm-hmm. ñun noo def choix wu bitim réew ku mel ni Iba ki moom ak pâtisserie bi mm-hmm. dellu si non pas parce que fii dafa neex wala fii dafa nooy mais dellu si pour màggandoog suñu dëkk dellu si pour servir suñu réew def nag investissement boo xam ne si tubaab yi lañ ko xame woon muy pâtisserie euh, boo ko doon def wala wala tubaab yi tey jii ñu relever défi boobu mhm. jox leen ko nag muy seen projet bëgg ngeen approprier que qu'il qu'on soit à la hauteur ou qu'il y ait des imperfections uh-huh. ngeen xam ne rek projet bi seen projet la et que dinañ si taxaw on est là et on sera toujours là pour vous voilà. ce sera un projet pour vous et ce sera aussi un projet qui partira de vous voilà. et qui sera aussi exclusivement pour Saint-Louis loolu moo Euh, kaddu yi di leen remercier di leen wax ne que ne Rosa dénk na leen ko waa Ndar yi mm. parce que seen i doom ñoo fa am teraanga ñoo fay suturloo bu yàqoo ñun la yàqul donc ngeen jàpp ñu teetee nu uuf nu bu baax jërë ngeen ñu ngi leen di gërëm en tout cas pour yu baax yi nga xamante ne jagleel ngeen ñu ko depuis lors publicité baa ngi jàll tout le temps ci télévision Futur Média boobu ba tey ngeen koy gis euh, ñu ngi gërëm bu baax waa euh, Rosa la Rosa ndekki li neex na yu baax yi neex na alors balaa ñuy dem ci Habib Ka yéen ñëpp ak may xool ma doxoo ma sa xarit la xaw ma yaa ngi may xool xool woo ko on va l'appeler en fin d'émission d'accord pour ton bonheur damay dem ci Alfi comme moom dafay ñëw indaale gâteau bi mu ñëw indi gato bi ñu jeexale ah sa xarit la xanaa. jeex na ah. <laughs> <laughs> avant de terminer Beurre Sofia la ñu jëlee Dakar indi ko fii mais am na fii. am na fi am na fi waaye Pape xam nga ni man. Uh-huh. dama am samay bagages yu spécial muy les produits Sofia uh-huh. waaw beurre mm-hmm. Sofia. Mm-hmm. ma andi ci lu bëri nag war ko jox waa Ndar Pape Cheikh. waaw donc beurre Sofia dem ci cuisine bi. parce que bi ñu defaree jën bi ba pare. Uh-huh. beurre Sofia lañ ci def. moom la ñu diw ci kaw jën bi. Mm-hmm. donc euh, dégg dugalaat farce bi ci biir. donc génn na mën nañ dagg rek. xool euh, sunu poisson farci à la Saint-Louisienne Pape Cheikh nan lay joxe. jën bi nga ni foo ko jëlee. jën bi sama papa Golbert moo ko jënd. ñoo ko dem nappi jox ma ko moo tax moom laay jox premier plat bi mu dégusté Pape Cheikh donc jën bi ni ñu koy gisee nii amatul yax ci biir donc mu jox ñu appétit que donc ko xool li defaraat ko waaw dañ ko on a suivi ça dañ ko génne bul fàtte sama plat donc ça donne ça Pape Cheikh dara bàyyi ma crevette yaa ngi ci biir yi ñor ak ñoom Pape Cheikh donc dañuy jox plat bi rek Papa Golbert mu dégusté avec un peu de mayonnaise quelques rondelles de tomate donc dañ koy jox ah am na mayonnaise ba monté avec euh, huile oléox Pape Cheikh. léegi kaay kaay defaral beneen plat defaral beneen plat. waaw ah. bii pour papa la. waaw pour papa la voilà defaral beneen. ma defar beneen defaral ma beneen waaw. Ah. Mado téyelal papa. voilà yóbbul jox papa ko mu defar ma bàyyi la nga defar beneen ah. waaw maa bi j'ai envie d'offrir ça à une petite fille qui s'appelle Michel. Euh, elle nous a fait un euh, un magnifique dessin bu gis nii ci télé bi ak soleil bi mais dessin bi dafa def table ak télé bind TFM miroir du Sénégal crayon la ko dessiné mais ça nous fait plaisir. Michel Michel c'est pour toi. kaay jaar fii wala tonton Bob la voilà attention Michel yow laa koy may yow kese <laughs> ça c'est pour toi léegi da may lekkee ma teg la fii lekk ko ah wala da ngay rusa lekk ci kanam nit yi léegi da nga bëgg dem taxaw sa côté ko fini allez va là-bas et eh, tàccu leen Michel en moom la jël comme moom mooy symbolique moo leen di représenté yéen ñëpp suñu mu munoon yéen ñëpp da ngeen di yéeg ci kaw parce que depuis qu'on la là gis nañu ni ngeen ñu accueillir merci kontaan nañu ci yéen et que Michel mooy yéen voilà école u jigéen ñi la nekk merci Michel Michel <laughs> après nga dem ngeen déguster ensemble sot sot voilà <laughs> allez ça c'est pour papa bii papa lañ koy jox El Hadj Amane Mbaye Garmi on va finir Habib Ka Habib mooy ñëw léegi indi gâteau bi et puis on en profite pour vous rappeler que voilà fii moo gën a neex yes fii moo gën a neex Gracias. léegi euh, Malal Sànq ana Malal sey na di ndeysaan sànq ñu ngi doon wax ci programme bi euh, juste rappeler que yeewu leen la njëkk a def mais des na itam yeneen émission yoo xamante ni RFM euh, moo ko fii indi Alaaji Assane Gueye ak équipe bu animation bu Radio Futur Média Dakar ne dort pas tamit samedi fii la ñu koy amalee ci Ndar juste en profiter pour remercier hôtel Cap Saint-Louis ak hôtel Rogia c'est ça Roguiat euh, Nord ak hôtel Maison Rose hôtel Koumba Bang bateau Bou El Mogdad euh, bateau croisière bi pâtisserie La Rosa office du lac de guerre société nationale des eaux du Sénégal bu leen itam tournoi de judo bi di ko suivre en direct ci télévision Futur Média ñu gërëm tam maire bu Ross Béthio euh, kooku mooy Bécaye Diop il était avec nous ce matin ak mairie bu Saint-Louis monsieur Mansour Mansour Faye ñu ngi koy gërëm ak maître Fatima Fall di huissier de justice ak autorités yi nekk Saint-Louis yëpp ñu ngi nuyu nag njabootu ajaratu Henriette Ndiaye sage-femme d'État boobu nga xam ni ndar xam nañu ko bu baax euh, Oumy Ndiaye di suñu yaay fàttewuñu euh, Ndeye Seynabou ak njabootam tous les Saint-Louisiens ñu ngi leen di gërëm waaye fàttewuñu toute la famille Thiam qui se trouve à Saint-Louis Mbose Thiam ak ay doomam toute la famille Soumaré ak suñu yaay kooku mooy euh, maa Fatou Dia yaay booy ñu ngi lay nuyu bu baax ak euh, ñi nekk fii ci ndar àndandoo ak ñun boobu nag ba tey alors joyeux anniversaire à Alioune Nia Apulaay la tudd moom TFM lay liggéeyee tey la anniversaire am on lui souhaite un bon anniversaire et puis GFM Habib Ka micro baa ngi noonu waxal vraiment kontaan nañu yow moom yow moom remerciement spécial pour toi voilà nuyu waa Ndar mm. euh, di kontaan di seen ñëw bi ngeen ñëw Saint-Louis ñun tam ñu ngi leen di dalal jàmm waaw dama wax ne lu ñu gën a encouragé pour si liggéey bii ñuy def Youssou Ndour ci la bokk parce que ñun dakaar la ñu nekkoon doon fa liggéey mais y avait a moment donné mhm. ñu déplacé wu ñëw Ndar pour dundal région bi voilà comme si lii la ñuy yëngu mhm. euh, vraiment ñi defar gâteau bi comme bi mooy seen premier tournée mooy def ci Sénégal ñun tam ñu wan leen Ndar fu ñu suñu teraanga bu ñu am di waa groupe Futurs média muy rajo muy télé ku am mission jëm si Ndar suñu pâtisserie Daaru Salaam c'est disponible pour vous. pour le monde doo leen fay lekk doo leen fay leen soriwul pont bi boo wàccee. boo wàccee rek en voilà merci. préfet di remercier suñu. kontaan nañu sama personnel yëpp. jërëjëf ñu leen di euh, sant leen gërëm en tout cas. merci beaucoup merci bonne continuation. Balal yaa ngi jaabante rek mel ni ku ñu dénk Ndar. kenn musul gis lii nga mel ni ku xewle dag ñoo gën a xewle gën a ñoo nekk doomu ndara alors pour terminer euh, dañuy àndandoo ak euh, partenaires yëpp gërëm tamit surtout équipe euh, administration bu GFM sànq ñu ngi koy wax que ce soit Daouda Diouf muy POD Pape Omar Diaw muy ki nga xamee ni moo di Diop Euh, Diop dollar laa ko tuddee parce que mooy borom venez signer et l'argent euh, merci Diop ñu ngi lay gërëm bu baax euh, Marie madame Dieng Marie non seulement c'est notre collègue et notre femme en même temps nous on t'aime yow yaay suñu lépp yaay awa yaay ñaareel yaay ñetteel yaay ñeenteel voilà donc merci pour tout ce travail magnifique bi ngay def on n'oublie pas aussi Fademba Diop la Linguère pour liggéey bu rafet bi nga xamante ni moo ngi ñu koy defar et puis on n'oublie alors Mohamed Nabi Silla il fait il rab day bu am solo fajar gi dañu koy woo mais bàyyiwul télé bi bàyyiwul rajo bi bàyyiwul site bi Mohamed Nabi Silla ñu ngi lay gërëm bu baax pour tout ce travail bi ngay def euh, fii ci euh, Ndar Géej ñu ngi gërëm tam équipe technique bi yëpp Khadim ñu ngi lay gërëm bu baax le grand caméraman choc petit petit c'est mon ami ah doom nday toog l'homme au doigt d'or fàttewuñu mon ami yaa OGV fii ba Angleterre sax moo may filmer comme Exidex il dit ki koy ñawal moo koy ñawal ba keroog muy sango suuf mais yao c'est toi qui as me filmé jusqu'à ma mort voilà moi je t'adore et on off wala on mais on suñu suñu rakk la tamit off lu tudd sax et puis fàttewuñu Pape Samba Thiam Pape Samba Thiam loo bëgg ñu wax la yow yeew leen sa famille la et on n'oublie pas Aziz Soumaré merci euh, Khadija Dafé on est content nous on t'aime toi aussi moom tamit euh, euh, daanaka mooy rédactrice en chef euh, bu li nga xamee ni moo di yeewu leen Kulim Dioum defe naa des na mama Henriette mama Henriette ndar-ndar la parce que maamam Henriette Ndiaye moo jur baayam Mbaye Diallo sage femme d'état bi maman Henriette euh, la grande maquilleuse yow ba ma la gisee ba tey namatuma xadi ñaag mado doo jaw sama rakk jooju farmaté liggéey yàlla na yàlla jàppale la ci carrière bi Fatima Ba yow yaa ñu jàppale ak rédaction bu euh, télévision Futur Média yaa tax ba namuñu Aïssatou Diop Fall ak Léa Ndiaye ah merci pour ce travail et puis Kia Aydara Maymouna fàttewuma Dia yee booy Dia Dia aussi eh booy booy fils tuuti ma fàtte la <laughs> El Hadj ndax ku ne xam ne restauration. jigéen ñi nga xam ne ñoo ko yore lim personnel bi rek après nga ñëw ci ci alaaji Golbe ak njabootam. waaw parce que da ma ne leen bëgg a gërëm gërëm bu spécial. waaw jéer ba tey loolu nga ma wax te fajar. ba tey nangu naa loolu. voilà Baye Cheikh moom mooy tëj moom nag moom mooy tëj émission bi. voilà moom mooy tëj waaw incha allah Baye Cheikh donc euh, euh, Boy Papi ñu ngi koy gërëm bu baax euh, defe naa des na waa décor surtout Lamine c'est mon jeune frère Lamine Baro moom tamit euh, kontaan nañ ci moom des na de bu ngeen ma jàppalewul du baax de. ah voilà Cheikh Ibra ngi koy gërëm Raphaël ak Ndiaye sama sama chauffeur personnel. ah léegi dama am chauffeur personnel moom tam ñu ngi koy gërëm bu baax mais nag El Hadj man gar mi gërëm nag bu baax El aline Alioune Badara Diagne Golbert ak soxnaam suñu yaay boobu ba tey dafa bàyyi lépp di ñu jàppale. xanaa daal di gërëm rek sunu ndey ju baax jooju nga xam ne. Mhm. mooy yaayu Malal. Mhm. Oulimata Diallo. nga xam ne bi nu ba léegi. Mhm. mosunoo xiif waaye xiif déggatuñu ko sax nag. côté bu ne toppatoon nañ ko. ba lépp tubaarkàlla ñu mën a lekk ba suur. naan ba suur. kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam yàlla sàmb ko. sàmm njabootam yëpp. waaye Pape Cheikh. xale yi nga xam ne ñoom ñooy ñooy ñooy équipe bi nga xam ne ñooy monté. bagage yi si. wallaay yal na yàlla sàmbali rek ma ma ma kontaan. yal na yàlla sàmbali. amin amin amin wax dëgg yàlla lu leen war rek ci bés bi def nañu. wallaay wallaay ndax Pape laataa noo toog. Mhm. heure bi noo jóg. Mhm. di toppatoo dëgg-dëgg heure boobu bi ma leen tiimee fii sama hôtel bi. sama yaram dafa daw. ma xam daal. ñii ci ñu bëgg GFM ci la ñu bokk ah. kon ñoom tam ñu ngi leen di ñaanal yàlla sàmm leen baax guddal seen fan loolu rek laa ci doon wax Baye Cheikh di gërëm nag waa Ndar yëpp kontaan nañu di gërëm waa Ndar yëpp Ndar daal li ñu naan daal Ndar daal gate nañu Ndar daal gate ndara ngi waaw ndara ngi ndara ngi <laughs> boo ne ko sa kaset bi ngay wàññi génnee ak naxo ak lanoo lanoo ma waroo ma sama yaakaar waroo kóllëre ma boole ak yow de warooma man bay garmi Malal Signor Diagne kenn du kenn du gërëm sa sa bopp mais nous on te remercie bul changer li ñu la bëgg a wax sa dëkk la ñu la koy waxee waaw ah, bàyyi ñu noppi reste comme t'es reste comme t'es voilà reste comme t'es reste comme t'es bul changer de bul changé barki dem wax naa ko RFM jaar naa fu ne yàgg nañoo jaaru xàmmee nañu fur na bu boy ko bokkal liggéey yaa ko gën loolu wax naa ko te ci télé laa ko waxee maa la fekk RFM xàmmee naa nit ñi fekk naa la TFM xàmmee naa nit ñi cest dire malal café sax du la koy wutil di la ko jox pour nga naan te ngeen bokk liggéey kon yàlla na yàlla na suñu borom jàppale la xale nga ñuy xale yàlla na la yàlla lafal cat yàlla la yàlla lafal cat sa dëkk la ñu la koy waxee ñëwoo Dakar soppeeku benn yoon barki Cheikhul Khadim darajey Serigne Bamba ñëwoo dakaar changé sa ay collègues gërëm nañu la ni nga jàppee ñi nga bokkal ndey ak baay noonu nga jàppee nit ñi moo tax loo ci gis résultat bi coupe du coupe d'Afrique bi dégluwuñu benn reporter malal yow mi yaa xew barki Dembo Ndiaye face à face bi fekk nga fa sa ay mag waaye kenn woowu leen yow la ñu woo ne la kaay taxaw ci diggante Eumeu ak Balla yaa ko liggéey ndax sa jikko nous tes collègues on t'adore ne change pas fii laa la koy waxee ndar bul changer fii lañ la koy waxee yàgg nañoo jaaru xàmmee nañu furno bu boy kon jikko bu ñu nit woon xam nañu ko bu dee ay tricher xam nañu bu dee hypocrisie xam nañu bu dee réel xam nañu fii lañu la koy waxee ndar ñëpp xam ko merci à tous voilà euh, ñu ngi lay gërëm ñagas bëgguñoo jeexal sax non warul jeex dañu jeexal et puis teraanga yaa ngi ñëw rek. alors ma chère lii fii lañ la koy waxee. ndar euh, benn styliste bu tudd Mansour Diagne moom ma ko moo ma ko euh, defaral merci beaucoup dinaa ko sol yeewu leen comme ça ñu dugal sa numéro mu jàll. di bisu sama benn maam bu tudd Maremba. maam Maremba fii la nekk Saint-Louis neen damaa sàcc ci sa doom. merci. moom te mu nuyu mère amee ma petite sœur am kenn musul gis loolu comme dit ma mère amee dañuy gërëm bu baax Bouba Ndour mooy producteur exécutif bu yeewu leen Bouba c'est le producteur exécutif de l'émission on va se quitter ak mbay Ndiaye Tilala kaay nga woyal ñu comme ça ñu tàggoo prochain rendez-vous décentralisé le 4 avril Yeewu Leen sera en direct à Paris man ak sama team ay kaala bi naa ko daan jël ey Ndoura Ndoura nooy ne leen Boubacar Ndouré yi adduna ko mel duniyaa ko meli caama coow li ci buntu teen bi gaañi amul baak la ko bokkal baayi yuusu maa jigéen nduuraay nduur waali mer gaa nooy wax leen nooy Boubacar Ndour tabara jaaje ba ak may jaaje ba Yaasin Jaal alaaji Golbeer jaañ ndar ndar baa ngi ngeen ma dégloo te gii ma wayal leen ma lal jaañ siñooroy kabara jaañ jemba may jaañ jemba mam far ba yaasin jaal golbeer jaañ tubaab jaañ sa baay ana papa Cheikh te gii ma wayal la waaw ma bégal ma bégal bis boo ma bégalee ma bégal la papa cheikh boo ma bégalee soo ma bégalee soo ma bégalee ma bégal la colbert boo ma bégalee ma bégal la yéen ndar géej na góore na papa cheikh bu la neexee jigéen na ko sagar mi boo ma bégalee ma